haali oɗo ko jonɗomi nelmomi koye mon giɗo ame moƴƴere sayiduna muhammad he yimɓe keɗoɗe lemseede goɗoɗe kala ɗe ina ɓeyda moƴƴere min tawi dari watma mbiram min woni gawɗo ma kala hunde ngam ma wodira qurasiyu siduna muhammad holi jaltinaɗo e maayo laamgo ngo tun uwata e ndiyam danejam keelelam qurasiyu yidde annabi fooli ɓernam yidde annabi yidde annabi fooli ɓerndam waasde yidde mo yomni ɓandam sunnode wontino sago am wirnota muy faabu diine jiɗɗo rasulallahi mbaɗa juuɗe dow yidde annabi fooli ɓerdam yidde annabi fooli ɓerdam wasde yidde mo yomni ɓanndam sinno de wonti no sago am wirnota komi faabudiine mbe jaara arabi towo koofol juuma gite ko joom yalde moƴƴere juuta daande ko nabi basirun laaba geɗe ko joom tiinetonde uurɗo jom sayane yumre mbaɗe juuɗe ɗo umonini rasulallahi hayno ñolloleɗe beltoɗe o jinganama parnoɗe leñol o jinganama yayno ñolloleɗe beltoɗe o jinganama parnoɗe mbaɗe juuɗe mon dow hayranalla o jinganama parnude lisan waɗayoñollala ɗo beltoɗe o jinganama parnude mbaɗo juuɗe mon dow e won allahu rokki meɗen ɗum o rokkani هيا فوت من جم النبي من الذي جمدا نبي هيا من دا برد فعمله ناتا الجنة كدبله هيا فوت من جم النبي min labi jumɗo o nabi hayawol ko allah rokki meɗen ɗum o rokkani halku fo mbaɗa juuɗe mon dow hayo allah waɗani nandoma leydi kame kammo tawa dow hayo allah ni nandoma leydi kame kam toɗo juuɗo mon dow hay allah taguma e nuru muɗum nuru ma e fo wallahi hay allah rokki meɗen ɗum aya allah waɗani nandoma leydi kame kam to waɗo haya min dariɗo kim antuma min wela wonde gawloma

دواء لمن ياوي وخصب لأسمعي وروح لمن يسكن وروح لمن يقدي تال هاتي وجاي ذكر ذي المجد أحمد شيخ ماربي وكنزي سيدي با وربي وهو ذكر فضلي ومسمعي وسر حياتي سيدي به سيدي به شيخ مري هاتي وجاي ذكر المجد أحمدي وكنزي وربي ذكر فضل محمدي ولي حبه قبل لا إله إلا الله ولادك جلمدي فوالله ما أزهرت من حب أحمد سوى باد باد كل أعدائنا يجفي تعال صلاة على هدي الورى بصفائي شيخ مروي سلام سري ألام لهم بدوائي سلام على من خصنا بذكائي يفرهنا إصلاح خرق خبائي إذا الدين لم يكمل فلا كانت الدنيا شيخ عمر من جريك ما يما بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الحمد لله رب العالمين نحمده سبحانه وتعالى ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فهو المهتدي ومن يضلل فلا هادي له والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا وأنت تجعل الحزن إن شئت سهلا أما بعد mbiɗi salmina gonɗo ɗo fof salminandu l'islam suka hen mawɗo mbiɗe ardina salminandu ndu ceerno meɗen éducateur meɗen fof meɗen ceerno hamidou yaro ban mbiɗe wiye on assalamu aleykum wa taala wa barakatuhu yi ceerno cheikh oumar moo leen di nuyu di leen ziyaar di leen ndokkeel ci bés bi bu tedd bu màgg bi nee na mu ngi jiital nuyoo bi képp ku fi nekk góor jigéen mag ak ndaw waaye nag ku koo xam ne moom la jotal ci nuyoo bi mooy suñu sëriñ Cerno Hamidou Yoroban mu leen di wax asalaamaaleykum wa rahmatullahi taala wa barakaatu en nanɗo hannde eɗen ciftora jibinaneede mouhammad sallllahu alayhi wa sallam nee na ñu ngi fii tey toog toga yu fàttaliku juddu yonent bi sallallahu taala alayhi wa sallam e oɗo zawiya barkindo woni zawiya cheikh omar al fouti radiallahu taala an ci zawiya mo barkel ɓi moye zawiya cheikh alhaji omar al foutiyu radiallahu taala an e oɗo jammane kadi barkinɗo jamma mo gandannoɗa ko heen feeñi ɓurɗo e annabaɓe ɓurɗo e nelaɓe woni mouhammad sallllahu alayhi wa sallam si guddigu barkel gi guddi gi nga xam ne ci la feeñee ki nga xam moom moo gën ci yon ci yonent yi moom moo gën it ci mooy kan mooy seydina muhammadin sallallahu taala alayhi wa sallam beele eɗen mbawa naftorade e jamma he ha mbawen hebde e barkeji mum kadi ngir nag ñu mën a jëriñoo ci guddi gi bu ñu mën a am ci barke ki nga xam ne moo waral jotaay bi mooy seydina muhammadin sallallahu alayhi wa sallam haalde e nelaɗo sallllahu alayhi wa sallam walla mbiyen yewtude e nelaɗo sallllahu alayhi wa sallam ko ɓural manngal wonande min jewtowo o walla wonande jewtowo o wonande kadi hettotoɓe ɓe nee na wax ci yonente bi salallahu alayhi wa sallam walla waxtaane ci yonente bi salallahu alayhi wa sallam ngëneel gu mii di ko waxtaane ngëneel gu màgg la ngir ñi nga xam ne ñoo fi toog di déglu waxtaan yooyu hol gonɗo mouhammad sallallahu alayhi wa sallam ceerno nee kan mooy mouhammad sallallahu alayhi wa huwa mouhammad sallallahu alayhi wa ابن عبد الله ابن عبد المطلب ابن عبد مناف ابن قصي ابن كلاب نون نون ايها ابن عدنان عدنان نون غندن o jeeya koye ɓiɓɓe ismail ismailu noon o jeeya koye ɓiɓɓe ibrahima wadde ganden mouhammad sallllahu alayhi wa sallam o yalti koye leñol ibrahima alayhi salatu wassalam noone mulime ay mamam lu mu ciy jublu mooy ñun ñëpp nañu toog te xam ni yonent bi sallallahu alayhi wa sallam fu mu jóge kat ci juddu gu rëy la judd moom sallallahu alayhi wa sallam baa ko wiyetee ko abdullah kono kanko muhammad sallallahu wa sallam heɓaani yiɗe baa makko sabu baa ko ade jibinande makko nee yonent bi sallallahu alayhi wa sallam pappam waajuram bu góor bi ko jur abdullahi la la tudd waaye nag jotul gis waajuram bu góor ndax laata moo juddu fekk génn na àddina يمكو ويدك آمنة بنت وهب نيا يا مونغي تدو آمنة بنت وهب كم هناك أو ويرني تو محمد صلى الله عليه وسلم أن ياري دوبي جاكم مؤمن لكنا فكر ينتبه صلى الله عليه وسلم مونغي تولو تي جروم بنيات تقال لوم نهيمو كو مامو كو بيتر عبد المطلب لكن لو كي كوتي مو امامم بتدو عبد المطلب وندي عبد المطلب دوبي ديدي ne mu nekk ak Abdul Muttalib ñaari at o wirni o yehi ne mu làkku wuyu ji boroomam caggal ɗum nee na ginnaaw loolu ne yima ko kaaw makko biteɗo abou talib ki ko yar mooy nijaayam bu tudd abou talib abou talib ne kadi ene heewno ɓiɓɓe no feewi nee na abou talib nekkoon na ko bëri woon njaboot lool no mouhammad sallallahu alayhi wa sallam heɓi duuɓi sappo e ko wayi noonu nee na yonent sallallahu alayhi wa sallam amoon na fukki at ak lu mel noonu no heɓe duuɓi sappo eko wayi boo bomo amee fukki at yu mel noon o namdi autorisation wonande kaw makko ne mo lacci autorisation cinnijayam male omo wawa liggade ɓeyde kanko mouhammad sallllahu alayhi wa sallam o yiɗano wonde poids wonande kaw makko ne da buggono nag sakku ndigal pour mën a liggéey ndax buggul woon nekk koo xam ne dafay tegu ci nit mouhammad sallllahu alayhi wa sallam o yiɗano wertude juuɗe makko wonande hay goto so wona joom makko subhanahu wa ne yonent bi wa sallam nekkoon na koo xam ne buggul woon tàllal loxoom ñeel kenn di ko sàkku dara waaye képp ko mu tàllal rek mooy borom bi tabaraka wa taala ɗon noon ene pour janngude heen ko heewi sëriñ bi fii nag war nañ cee waxtaan jàngat ci lu bare bare bare muhammad sallallahu alayhi wa sallam duuɓi sappo o yaare yonent wa sallam mu toll ci fukki at kono haɗanimo liggaade waaye terewu koo liggéey heɓano hoore makko mu faggul boppam o fortune juuɗe makko tallal loxom di sakku omo namdoo goɗɗo ne di sakku ndimbal ci keneen kala nde o waɗi ɗum fof ne bis bu ko defee rek ko ñaagaare joom makko subhanahu wa taala ne na nga xam ne momentu sallallahu alayhi wa sallam bu tàllalee loxoom alayhi wa sallam kanko ñemtinten comme que nag bi sallallahu alayhi wa sallam moom la ñuy ko haɗi ne lan moo tere enen yimɓe yimɓe gandanɗa yimɓe yimɓe tan tan tan ñun ñi nga xam ne nitu simple lañu ko haadi en mbawa ne lan moo tax ñun mënuñu liggaade kono mouhammad sallallahu alayhi wa sallam jaaɗi to duuɓi sappo liggirotonooyi waaye waaye lan moo ñu tere mën a liggéey ndax sallallahu alayhi wa sallam yi gën ñëpp toll fukki at fas laxasaayu di liggéey ci doolem nga ceen tappale yaagal sëriñ bi nee na nañu bàyyi tàppale fas jom nangoo liggéey liggoɗen nee nañu liggéey basen yaade eɗen namɗo jawɗi beebɗi nee ñi bañ a dem di utee alal ci façon boo xam ne ay door la ay façon yu yomb sabu subhanahu wa taala haalnaani en ɗum ndax borom bi subhanahu wa taala santuñu ko santaanewu ko muhammad sallallahu alayhi wa sallam ne kadi janginaani en ɗum yonent bi sallallahu alayhi wa sallam it jàngaluñ ko muhammad sallallahu alayhi wa sallam o mawni ko makka sëriñ bi nee na yonent bi sallallahu alayhi wa makka la màggee te woon saha nee na jamono jooju yimɓe makka naaɓe gonnoo koye majjere nit ñu nekkoon makka ci réer la ñu nekkoon eɓe ndewa sanamuuji nee ñuy jaamu ay xërëm yoga e maɓɓe nee ñu bëri ci ñoom e ndewa lekkule nee ñuy jaamu ay bant yoga e maɓɓe ne kadi ñenn ci ñoom e ndewa sana e, e ndewa ñu jaamu ay jant ñu jaamu jant bi eɓe kaltano gonga ne daawuñoon wax dëgg eɓe jaranno eɓe jaranno hamre mo yani sangara ne da won nañu it naan sangara eɓe toñitire koye maɓe taw alda e gonga dan nañu toñante seen ɓiir lu andut ak dëgg kono subhanahu wa taala o reeni nelaɗo sallllahu alayhi wa sallam eɗe gueɗe foof waye borom bi wa taala sammanintum sa sallam ba muccuna ci mbir yi yeb hay arabeɓe ɓe ko adi l'islam من محمد صلى الله عليه وسلم الصادق الأمين ما عربي زاي صح لجيت صلى الله عليه وسلم نيكو يوني جيت إسلام بي دوت نانكو ووي محمد الصادق الأمين غونغودو لي كي دغو الأمين الأمين كولاد كولاد ني مو نيكون ايت كوني وولو موم صلى الله عليه وسلم محمد صلى الله عليه وسلم هبي دوبي نوغاسي جوي ne yonent bi sallallahu alayhi wa sallam amoon na ñaar fukki at ak juróom ca jamono ko nden o resi sayyidatuna Khadija bintu Khuwaylid boobu nag la sàkku woon soxna ci sayyidatuna Khadija bintu Khuwaylid te on sahaa Khadija yaarete duuɓi capannayi te jamono jooju Khadijatu mu ngi toll woon ci ñeent fukki at Muhammad sallallahu alayhi wa sallam heɓi bi sallallahu alayhi wa sallam jamono jooju amoon na ñetti doom yu góor e ak ñe ak doom yu jigéen yile yile be ne ñaar ñi jibine ko khadija ne khadijatu mo len jur mbiyete ko alqasim alqasim la tudd kenn ki wa abdullah ak abdullah goddo ne kenen ki jibine ko maria ne maria moko jur bibi mako rewbe non ne doom mi jigeen ñi nak goto wite ko zainab كنك زينب لتود غدو ويته كو فاطمه كنك فاطمه لتود غدو ويته كو رقيه كنك رقيه لتود غدو ويته ام كلثوم كنك ام كلثوم لتود كم فوف نون نانا نيوم نك غادي مايد صبح غادي مايد نلا صلى الله عليه وسلم نيك جك ني جك فا ني جك فاطمه رسول الله صلى الله عليه وسلم هذه فاطمه موي فاطمه رضي الله عنها رضي الله عنها كانكو ويرني موم دا فلاكو ولي بي جيغوم جوروم بن وير دغال نلا صلى الله عليه وسلم ويرني غيناو بينتو صلى الله عليه وسلم لاكو نلا صلى الله عليه وسلم وونار نلا رتن ونن جول بيبي نانا ينتو صلى الله عليه وسلم جامونو nekkul woon rek de yonent ñeel julli ñi kese. ala allah ko nulima. déedéet yàlla daf koo yónni. wonen de dendaangal tagoore. ngir mboolem nag lu mu sàkk. kono allah haalide qur'anul karim ni comme ni ko borom tabaraka wa taala waxee ci alquran bu tedd yurmeende nee na yërmande ko jikko jikko la jikko bu tedd ngandonɗoɗa bi nga xam ne ana cifro ɗum so wona amul ñu koy melo lu dul ñu dëggu nulaa sallallahu nee yonent bi sallallahu alayhi wa sallam omo wonno laaɓɗo ɓernde nekkoon na koo xam ne xol bi lu laaɓ la dara nekku ci ɓernde nde hay dara dara ala heen xolam boobee dara nekku ci no heefere ɓe piinomo yofori ɓiñ ko ɗon dóor merimo kaaƴe di ko sandi ay xeer ƴiyam yelte e makko badere tam tuuru jibril alayhi salatu wasalam are makko yonent bi sallallahu alayhi wa sallam jibril alayhi salam ñëw ci moom welama mu ne ko bu la neexee léegi léegi léegi allah subhanahu wa taala halkaɓe kamɓe foof yàlla subhanahu wa taala alag leen ñoom ñëpp ala اللهم اغفر لقومي اللهم اغفر لقومي انهم لا يعلمون انهم لا يعلمون الله من يا الله الله كريم بالاخشى بيني من من كرمي يا الهي وجزيا ابدا ان محمدا مختار في لولا النبي مولى نبي بيني ولكن منا من كرمي وصليا يا إلهي وجزيا أبدا أن محمدا المختار في القدم صلى الله عليه وسلم يبي لا لا انتو صلى الله عليه وسلم وخليني الله الله جعل والله بنعندا والله خمون سبعندينو بني خمون دنيا جف جف جا جا نجف غرب غور هكذا ميدو أرض النار صلى الله عليه وسلم يعني بين غور مثلا نجوا أنت بسال الله عليه وسلم وارثه ومتيكي من يومنا دمر وارده من يومنا كنقولين كان بندا أكاد يو خمني جارليون ونمدين رسول الله عليه وسلم مولات أنت بسال الله عليه وسلم صحابة لكل من رأى صلى الله عليه وسلم ني ني وون كو صلى الله عليه وسلم وايضا ني ني مو نيو رك وي نرا صلى الله عليه وسلم حكم جوغي جوغي دادي من ينتي صلى الله عليه وسلم جوخما علال يي nga yor جودي دي وانا جودي ما كو جودي الله علال يي nga yor du sa alal alal yalla la وانا جودي ما du sa alal de وانا جودي كدي جنابه ما du sa alal way jur o poñi nuraaɗo sallllahu aleyhi wa sallam mo poñe yonente bi sallllahu aleyhi wa sallam sahaba ɓe gummi sahaba yo jog mbiye ndene dow makko bëgga dal ci kawam nuraaɗo sallllahu aleyhi wa sallam wiiɓe yonente sa sallam ne leen gacceeɓe bàyyi leen ko neɗɗo man haawa nikkina gi yeem ko réaction nuraɗo sallllahu alayhi wa sallam ci réaction yontubi sallallahu alayhi wa sallam innaka ya mouhammad mi ne ko innaka ya mouhammad taji seyi'ata bilhasana taji seyi'ata bilhasana uy e an nuraɗo sallllahu alayhi wa sallam mi ne ko eye yontubi sallallahu alayhi wa sallam yoɓa ɗi nga fay bonande ñawtef e moƴƴere ne ci baax nulaa sallallahu alayhi wa sallam en jangina ɗon en jangina en ɗo hunde ne yontubi salah sallam nag mu ngi fi jàngal aslaf wona neɗɗo so waɗima ko muusima tan nekkul nit kii bu la defee du la métti rek walla tuñ ma tan walla mu tooñ la rek mbiya aɗa yeftoo nga bëgg a fayu comme no muusiri ni comme nu mu gënee méttee comme no jolfuɓe mbiyata ko comme ni ko olof yi di waxee mbaam bu la wekkee rek mbaam bu la wekkee rek boo ko wekkee boo ko wekkee rek ay mbaam ngeen ngeen yem ne jeex na waɗumla sallallahu alayhi wa sallam nee na yonente bi sallallahu alayhi wa sallam omo pour ñu moytu tu wonde ko kalmi ɗo joni ñu bañ a mel noo melokaan xam ne moom la tudd léegi nura sallallahu alayhi wa sallam yurmimo yaafimo sallallahu alayhi wa sallam sëriñ bi nee na mu yërëm ko jéggal ko hokkima e mo may ko ci alele ta dem ɗum ɗo fof noon loolu lépp nag ko leçon ŋaaji ay leçon la ɗi gandannoɗa yi nga xam ne ene waɗɗi julɗo war na ci mboolem jullit rewde topp ko e gurdam nulaaɗo sallllahu alayhi wa fof ko leçon siddunde yonti sallah alih sallam nee na lépp leçon la leçon ngaji nganndanɗa ene poti janngude ɗum leçon yo xam ne war nañ koo jàng jikkore ɓen ɗumne kadi ñu jikkoowoo ko nag it o ɓuri feewirde gën a rafetee kadi aicha radiallahu taala anha o namdeede e jikkonuraaɗo sallllahu alayhi wa لأن عائشة رضي الله تعالى عنها مثلا كل الجيكة ينتبه صلى الله عليه وسلم وجابي أوي لأن أوي لأن لأن خلقه القرآن لأن خلقه القرآن جيكة نور صلى الله عليه وسلم كو القرآن جيكة ينتبه صلى الله عليه وسلم القرآن لون لأن غند إنفف القرآن كو حالة الله لأن ينجب خمنني القرآن كو يالله لأن غند كو القرآن نوي سلودني خمنني القرآن نموري نوي لابتودني تنمو ستئت نوي فيودني نمو باخئت نوي يودني نمو نمو رفتئت نصفة من جيدة أمير القرآن karim ne bépp melo boo gis ci biir alquranul karim no yóbbiri foof nu mu gën a rafetee rek feewiri foof nu mu gën a baaxee rek mojjiri foof nu mu gën a baaxee rek ganden nulaala sallallahu alayhi wa sallam ko noon sifori xamal ne yendu sallallahu alayhi wa sallam melokaan yooyee la melo konoon ari konoon ari e hadis heeni noonu sax la ñëwee ci hadis bi innama buistu innama buistu li utammima makarima al axlaq li utammima makarima al axlaq min nuraal sallallahu alayhi wa sallam ko min nelaaɗo ne ma ñent bi sallallahu alayhi wa sallam dañ maa yónni waawa timminde ngir ma mën a matal walla xam waawa moƴƴinde ngir ma mën a baaxal ne jikko yëpp yoge e defte kadi kaali ne oppo ci ay téere wax nañu gorko gooto gummiɗo e bani israil benn góor bu jóge ci bani israil banu israil o ko joom gando wonnoo noon banu israil ñoo kooku ku amoon xam-xam waare anulaa sallallahu alayhi wa sallam mu ñëw ci yonente bi sallallahu alayhi wa sallam kono no liirno avant mo aranulaa sallallahu alayhi wa sallam ay defte balaa moo ñëw ci sunu si rasulullah sallallahu alayhi mu jàngoon ci ay o wiya hen mo gisti ene ara annabi mo gandannoɗa ne dina ñëw yonentu boo xam ne ko koolaɗo koñu wóolu la adi ko nunɗuɗo te it koo xam ne ku mandu la o winoon e hoore makko mu wax ci boppam komi mbaɗa o testé oɗo gorko mi daara so tawi kanko woni nuraɗo sallllahu alih wa sallam kalteɗo o taw wona kanko e, mu ne nag dinaa testé góor gi ñuy wax bu dee moom moo yonentu sallah alih w sallam ko xam walla du moom o noon ne mu ñëw o ñamli o ñamli wa sallam ɓe cuɓi neñu tan ñalawma mo gandanɗa nura sallllahu alayhi wa sallam ko nden foti yobde bés bi nga xam ne moom no rasulullah salah sallam wara fay balle tati ne ñetti fan ko adi oɗon jour jiitu bos boobu di jot gorko ɓorni pare makko gorko sol dallam o yehi gawi nuraɗo sallllahu alayhi wa sallam dem ko netibi salah sallam o wiimo mo wax ko ni ari ñëw naa te garmi debi mo ñëwee joɓa kam jawɗam ɗi pour nga fayma sama alal joni jinmi te léegi léegi laa ko soxla joni cohlumi ɗum jox ma ko léegi laa ko soxla te won saha te jamono jooju تون سها جمانو جوج أه، عمر بن الخطاب عمر ابن الخطاب إيه، وانا اسرامك نكون شيبتم واجو ان حال حالو ان غاندا يودان واجدي واخ يو خامني رافتو عمر تيكي هن عمر ميرتي امي ويم وار ديفاند نبي صلى الله عليه وسلم جوج بوغ ديفاند نبي صلى الله عليه وسلم نبي صلى الله عليه وسلم يوم على عمر اتشمو ين يعني صلى الله عليه وسلم نكو ديدت عمر بايكو توتمو كادي كو نجو دينامكو جوكو ايت لينكو يورل بيدن مو كادي nga dollil ko sabu en ganda en wawi won taw en joguinimo haqqe te en ganda ndax xamuloo ndax amal nañ ko ak te xamuñu ko gorko o tukki ne ko gorki sëgg ndaari nulaaɗo sallallahu alayhi wa sallam mu xool yonte bi sallallahu alayhi wa sallam o wi ashhadu an la ilaha illa allah wahdahu la sharika lah wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh rek mu ne la ilaha illa allah wahdahu la sharika lahu wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh woni wonno nulaaɗo sallallahu alayhi wa sallam ko ni o wonduno yimɓe ɓe ne yonte sa sallam ni on lekke o nak nit ñi nura sallallahu alayhi wa sallam omo teeyno omo yankinino neneto saa sallam ko teeyoon la ko wàcce woon boppam it kadi ko gonguɗo te ir ko dëgguwoon la kadi ko nunduɗo te it ko maandula e kala julɗo te ɓeppu julluɗ kewɗo ɗe jikkuji ki toppu jikkoyi yo andu no xamne omone jagge omone jagge e sunna mouhammad sallllahu alayhi wa sallam ne joppana si sunna yonentibi sallllahu alayhi wa sallam te kadi mo kala mo waɗani ɗum ɗo te it kebbu ko jaful jafi andu na nga xam ni ko baɗɗo contre sunna mouhammad sallllahu alayhi wa sallam dafa contre sunna yonentibi sallllahu alayhi wa sallam yo allah dandu en hen yalla nañu ci yalla musal on mouhammad sallllahu alayhi wa sallam kooku mooy mouhammad sallllahu alayhi wa sallam ene foof nenden mbiyen sallllahu alayhi wa sallam nee na mu ngi ñaan mbooloo mi ñun ñëpp dañuy àndoon na wax sallallahu alayhi wa sallam sababu sallallahu alayhi wa sallam o haalino o wi ndax sallallahu sallam waxoon na jamono mu wax ni nayɗo kinayi ayi nayɗo de wona ko joguide kaalis tan cattuɗo juuɗe hokkata hokkirtade mune nayi nekkude ko xam ne yorngo sa alal nga tewi ko nedoo ko mayde nayɗo on woni nanɗo inde inde sallallahu alayhi wa te mantanima leena kinayi moy ko xam ne dégg na turu yonente bi sallallahu alayhi wa sallam te wo ci moom sa yi nulaa sallallahu alayhi wa sallam haali ɗum ɗo foof ha allah e allah subhanahu wa taala ene wawi ene wawi yurmade meɗen ne bo guise yeddu salah sallam dundu dundu bi wax wax je yeb ngir suñu borom tabaraka taala bonño yërëm sen mantimo buñ ko tagge ko ɓeydatamo lu koy yokk ay dara dara en tan ɓeydata ñun kese ñoo ci yokk haalire hadis ni comme ni nga waye ci hadis man salla alayya wahida man salla alayya wahida sallallahu alayhi ashra sallallahu alayhi ashra عليه مرة صلى عليه الله أشر مرة sayyidil wara sayyiduna muhammad wa kullu man salla sayyiduna muhammadu wa kullu man salla alayhi marra salla alayhi llahu ashra marra sayyidil wara sayyiduna muhammadu wa kullu man salla ya rasulallahi alaihi marra salla sallallahu alaihi عليه ashra marra allahumma salli ala wadde serigne bi neena kon nak allah julli go xamne yalla moko moo ko e ci nit ko yurmende tan neena na yermane rek la wadde sembi sallallahu alaihi wasallam kon bu ñu waxee sallallahu alayhi wa sallam. nga la ñu xam ne yàlla. wàccee na. yërmandeem nee ci suñu kaw. wadde en ñaago neena sëriñ bi neena ñu ngi ñaan yàlla waɗen e rewooɓe sunna muhammad sallallahu yal ni yàlla def ñuy topp di di roy sunna yonent bi sallallahu alayhi wa sallam nu mu gën a baaxee allahuma ijcalna min alladina yattabicuuna sunnata nabiyaka bi axsanih amin wa yamutuuna ala millati amin wa yaxshuruna fi zamrati amin te kadi miɗi ñaago allah te mu ngi ñaan yàlla kala garoɗo ne kadi kebbu ko fi ñawit ari taw ardi koye haaju ñewgote andak aajo allah humtu haaju muɗum yalla yalla fay sa aajo o ɓuuri fewirde numuy gënna baaxe aaju one kadi so humtima aaju boobu it bu fajo wona ɓural mu nekk ngëlel wone ndemakko neñella ene ñaagone kadi ñu ngi ñaan it ceerno men suñu sérigne bi éducateur men suñu éducateur allah judde balɗe makko yalla guddal fanam hokkama cellal may ko wér waccama ɗo ha ɓooya ɓooya bayi ko fi lu yagg yagg saabu wongol makko ɗo tan koko moƴƴere meɗen ndax nekkam fii mbaax yiw kese ñeelñu o ɓeydoto andinde en allah dañuy yokk xamal yalla ɓeydoto andi en nulaaɗo sallllahu alih wa sallam yokku ñoo xama yontu sallah alih sallam ha eɗen mbawa hebde walluyu allah boñi mën a am ngërmande yàlla ha eɗen mbawa kadi bokkude allah yurmi boñi mën a am boñi mën am nag bokk ci nga xam ne yàlla yërëm na leen yàlla waddu hen e ɓeen nee na yàlla ñu yàlla boole ci ñooñu eɗen mbiya nee ñu ngi wax ne assalamu aleykum assalamu aleykum rahmatullahi taala wa rahmatullahi taala wabarakatuhu wa barakatuh ala nabi wa alayhim ajmaina salaama rabbina دائما عام بسحبه نعم بسحبه نبي نعم وعليه وأجمعين سلام ربنا دائما خليفة بسمامنا على النبي وعليم أجمعين سلام ربنا دائما نعم بسحبه على وعليه وأجمعين سلام ربنا دائما ألف بسمامنا أتمم لنا نورنا واغفر جرانا أنا تقضي حوائجنا يا واسع الرحوم على نبي وعليه ووأسمئنا سلام ربنا دائما قلف بتمام حمدا يوافي بأنام لنا وبرار لربنا ويكافي جيد من نعمي على نبي وعليه واو أجمعين سلام xalifa bi samaam nee na wasiy aljal bi qad jina wal aysha lana min tasawuqi budun wasial karami mbokki jullit yi nu sant yàlla suñu boroom cant gu yelloog jëmmam ju tedd ju màgg ja julli ci sangu-sang yi muy sayidil wujud wa alami shuhud sayidina muhammadin sallallahu alayhi wa sallam ngi yëkkati nuyoo bu tedd bu sell muy jàmm yàlla ak barkeem ak yërmandeem yàlla na ko yàlla wàccee ci jataay bi yàlla na ko yàlla wàccee ci jataay yi mel nii yépp ba jàmm jooju yàlla na wër àdduna bi yépp ci barke ki tax ñu daje fi muy sayiduna muhammad sallallahu alayhi wa sallam ñu ngi jiital ci nuyoo yi ni nuyoo ak ziyaara yi suñu sëriñ suñu wayjur suñu kilifa di cerno xaamidu di ko ñaanal yàlla yàlla na ko fi yàlla yàggal yàgg gi ànd ak wér ci barke yonent bi ñu ngi nuyu kilifa yi nekk ci néegu yàlla bi yépp góor ñi ak jigéen mag ak ndaw di nuyu itam ñi nekk ci biti ñépp ak ñi nga xam ne ñu ngi déglu moo xam ci safina lañuy ñuy dégloo ànd ak ñun en direct ci gàmmu gi fii ci zawiya maam cheikh alxaaji omar al fuutiyu ñu ngi nuyu suñu imaamu ratib di imam alxaaji ibrahima la mi ngi nii toog tubaarakallaahu di imaamu zawiye bi di boroom xam-xam di nit ku baax tubaarakallaahu di kenn itam ci njabootu sëriñ bi ci taxawaay ci wàllu xam-xam rawatina ci néegu yàlla bi nuyu tamit kilifa yu tedd yi toog yëpp imaam won ñu lay nuyu Baay Kaalidu ñu lay nuyu bu baax di la ziyaara Dia ñu ngi lay nuyu di la ziyaara bàyyi wuñu kenn Zakaria maa ngi lay nuyu baax yaag Bachir di leen ziyaare bu baax di beral nuyoo ñi doon tàgg yonent bi sallallahu alayhi wa sallam nuyu suñu rakk ji nu fekk tubaarakallaahu muy def waxtaan wu am solo di cheikh alxaaji Omar Baan di ko ñaanal yàlla yàlla na ko yàlla may wér ak fan wu gudd ci barke yonent bi ci barke yonent bi sallallahu alayhi wa mu mel ni guddi gi guddi la goo xam ni yonent bi sallallahu alayhi wa moo ko jagoo moo ko moom muy guddi goo xam ni képp koo xam ni màggal nga guddi gi yàlla dana la fay tuyaabay àdduna ak tuyaabay àllaaxira cheikh alhaaji malik si radiallahu taala anhu màggal guddi juddu yonent bi Maodo da ci bind Souleymane Mangane maa ngi lay nuyu moom laa àndal ak oustaz Habib Diop màggal guddi juddu yonent bi cheikh alhaaji malik dafa bind nuñ koy defee ala azimu leylal wiladati xisbatan إذا لم يكن نحو الحرام عدول الله مالك دفا ووتي ماغال غودي جودو يوننتي بي واي بيم كو ووتي موم الله مالك داف ني جانغال نون كوي دافي ني ن الله مالك نون كوي دافي موني الا دامني عزمو ماغال لين ليل الولادتي غودي جي سانغ بي جودو مو سيدنا محمد من دون الله الشيخ الحاج مالك lu tax ñuy màggal guddi gi mu ne xisbatan ngir ngeen màggal ko pour sàkku tiyaaba alaaji Maalik nee na màggal leen ko isa lam yakun naxwal xaraami xuddooloo su fekkee fi ngeen gi màggale guddi juddu yonent bi du ngeen fa def dara lu neexul yàlla looloo tax tey ñu daje ci néegu yàlla bi di ay jaamu yàlla di màggal jaamam bi nga xam ni mbooleem jaam yi kooku moo ci gënal yàlla muy sayduna muhammad sallallahu alayhi wa sallam ndax aaya bi ngay jàng ci alxuraan wala xad karam naa bani aadama yàlla ni maa teral doomu aadama aaya bi kenn moomu ko ku dul sayiduna muhammad sallallahu alayhi wa moo ko moom yeneen boobu yàlla teral moo tax mu nekk nit yàlla bind ñu nekk nit yàlla comp ci teraanga yonent bi teralaale nu kon guddi googu guddi la goo xam ne guddi gu rëy la guddi la goo xam ni guddi gu màgg la guddi la goo xam ni guddi gu bari teraanga la guddi la guddi la goo xam ni guddi la gu bari pay yonent bi nag moo toll noonu ci yàlla yàlla bàyyiwul ba yonent bi juddu mu soogaam koy màggal déedéet bàyyiwul ba mu juddu mu soogaam di ko ni nañ ko gàmmul déedéet xoolal yonent bi sallallahu alayhi wa sallam alaaji Malik nee ba yàlla dee digal li ñu magal yonent bi ak ñu gamul ko boba yonent bi juddoogul ñu ne alaaji malik kañ la bu ñu altini ci guddii wala alxamis ci guddii leeru yonent bi départ ci ndigal bayam dem ci biiru yaayam Amina ci la yàlla commencé ni magal len ko ñu ne alaaji malik bindal mu ni laylal arubati xalla durru fi rajabin sumal munaadi yunaadi al alfaymi tanabbaoo anna nuural xatmi laylakumoo قد حل في غيمة من أرار الخيام تفلن ما قال ينتبه صلى الله عليه وسلم واو قال صلى الله عليه وسلم ضل الدر fi رجب ثم المنادي ينادي مسمع الفيم alaaj Malick ne laylal arubati guddi àjjuma muy alxamis ci guddi xàlla la wàcc addurru leeru Seydina Muhammad ñu ne alaaj Malick fu mu jóge ak fan la wàcc alaaj Malick ne mi ngi jóge ci Abdallah ma nga wàcc ci Amina nee na guddi googu alaaj Malick nee na sumal munaadi yunaadi musmi alfahimi nee na guddi googu waa màkk yëpp ñu ngay dégg benn baat boo xam ne ma nga leen di woo waa màkk yëpp di dégg baat bi waaye gisuñu ñu jëmm ja ñu ne alaaji Malik lan lay wax mu ne ma nga naan leen te nabbahoo anna nuural xatmi laylakumoo xad xalla fii xiimatin min ad aril xiimi alaaji Malik nee na leer gaa ngi naan leen te nabboo yewu leen waa màkk yëpp yewu te nabboo يا ولين تنبو يا ولين ومكيب يو بني يو هاتف بانو كونتيني دي واخ نان لين موي أنا نور الختمي نكالير كينغا خمني موي موتلي 103999 بروفيت خط حل واتشنا ليلكم سن غديتي لارغي فان لا واتش في غيمه تي بركل في غيمه تي كر في غيمة واتن كبير جيجين واي جيجين بابو من أد أرخيمي جيجيني ما كيب مو جيجين لاب الله مالك نانا بني يو كيلاني بنوبي دفلاني يا بنوبي نيم نيب يو نانو مو وخلن لن يوارا ديف كون نون لن يوارا غامو نين الله مالك بندل من أنا عطيرو بخيرو خير البخوري وأوف بشو سجاداتي تكريما على الخزني Yeah, yeah, yeah. alaaji Malick nee na haatif baa ngi naa leen an ñu ni tekk di ko déglu mu ne attiroo gëttu leen mooy laal leen parfum yu neex bakiroo cuuraayoo leen xayral buxuuri cuuraay yi dàq ci cuuraay yi ñu ne ko lu tax ngañi ñuy tu parfum lutax ngañi nga ñuy ay ciuray mu yamuma ca wa africho tanen lal asijadati sijaadaati pour lan takriman ngir magal alal xusami ci ki bari te moy seyduna muhammad sallallahu alaihi wasallam sallam ñu ne alaaji malik est ce lolu fi rek lay yem dedet ni yàlla waxe aduna magal len juddu yonent bi non non la waxe kaw asaman نيو ماغال كوتي تيوتي يننتي بي ني نالا جمالك موني ملائكه المخربون موي ملائكه يجي يالا نيوم لا يالا جوخ نديغال ني لين واخ لين وا ملائكه ييب اك عالم العلوي ييب نيو ماغال كوتي جودو تاي ناخ ليرو يننتي بي ديبار ني تي نديكو عبد الله ديم تي بيرو امينه ني نالا جمالك بندل موني خال الملائكه ابواب السماء فتحات كذا الجنان ونور الشمس في العذاب أبواب السماء محمود كذا الجنان والجنان شغل حاج مالك نانا خال الملائكة ملائكة نانا قد كروك أبواب السماء جرم ياري بنتو أسمان ياب فتحت يالا دفن ننك أبي يالا دفن ملائكة أبي لما ياري بنتو أسماني pour commencer màggal yonent bi malaaka yi ubbi juróom-ñaari buntu asamaan yàlla ñu leen ubbi leen juróom-ñetti buntu aljana yi teg ci ñu ubbi juróom-ñetti buntu aljana yi teg ci ca ëllëg sa yàlla ni jant bi sa leer dolli ko ba mu gën a leer te bul tàng ngir lan ngir juddu seyduna muhammad sallallahu alayhi wa sallam ñu ne alaaji malik mu ni guddi googu ñëpp a kontaan guddi gogu ñëpp bëgg ba mu dess kenn moo bëggul mo kantanul ñu ne ko moy kan mu ne moy iblis ñu ne alaaj malik bindal mu ne wa anna ranna اللعين الخب يحضره allainu alxabbu yaxduruhu junuuduhu wa huwa rihdidun min جنوده أها alaaji Malick nee na wa an na bind na ran na onk na ñu ne alaaji Malick kat moo onk mu ne allahiinu ki yàlla soril yërmandeem te mooy iblis alxabu ki bon alxabu ki bon alaaji Malick ne moom iblis ba mu yuuxoo guddi këram yaxduruhu junuuduhu nee na doom yaag sëtam yaag njabootam yaag ñëpp ñëw ci wetu iblis di ko laaj ñii naan ko bàyyi lan la ñuy naan ko maam lan la mu ne leen yàqu ngeen ñu ne ko lu ñu yàqu mu ne guddi tey am na jigéen boo xam ne ëmb na koo xam ne bu juddoo ku ko sopp dem aljanna su juddoo ku ko tudde sa doom doom ja dem àjjana baay ba dem àjjana yaay ja dem àjjana guddi tey ëmb nañ koo xam ni turam la yàlla lënkaleeg turam suñuy noddu soo waxee ashadu an laa ilaha illa allah ashadu an laa ilaha illa allah te waxoo ashadu anna muhammad rasulullah noddu nga yàqu sooy liqaam soo ne ashadu an laa ilaha illa allah te waxoo wa ashadu anna muhammad rasulullah noddu nga yàqu soo ne laa ilaha illa allah yàlla ni soo bëggee mu gaaw a yëg teg ci sayiduna muhammadun rasulullahi mu ne kooku la ñu ëmb tey waxaale way la kumoo يا أمتي أملت أها يا أمتي حملت مولانا بهذه بهذه درة من أحسن الثواب شغل حاج مالنا إبليس نلن وخالة إبليس نلن ويلكم تسكرين نيلنا لين waylakum moo toroxte ñeel na leen ñeel na leen yaa ummati yéen sama njaboot ñu ne ko lu tax mu ne xommilat ëmb umm nañu fi haasihi ci guddi tey jii muy guddi àjjuma durratun wurusu durr woo xam ne min ahsani tuwami mboolem wurus yëpp moo ci gën a màgg ñu ne alaaji ndax foofu la yem mu ni déedéet yonent bi la yàlla teral alaaji Maalik nee na juróom-ñeenti weer ak fukki fan la ko yaayam ëmb waaye bi ko yaayam ëmbee weer wu nekk benn yonent ñëw na pour ndokkeel ci Amina yonent bu ñëwee day wax Amina Amina xool ko mu ne ko a anti umilti badran sayyidal umami ee eh, soxna si yaa ëmb weer woo xam ni mooy sangu àdduna ak sangu àllaaxira ñu ne alaaji Malick bindal mu ne xaaral ma résumé lako ci ñaari way dafa guddii wa jaa aadamu tabshiran wa siisu lahaa nuhun wa hudun wal xalilu simmi Cheikh Alhaji Malick nee na wa تبشيرا وشيث لها تبشيرا إدريس تبشيرا نوح تبشيرا هود تبشيرا ثم الذبيح تبشيرا كلم الله تبشيرا كلمته تبشيرا من مودي يبني من أول الشهر في الترتيب لا تهمي الله جمالنا ويرونجك آمنا نيو Amina génn Adama ñëw xool ko ni ko soxna si yaa ëmb sangu nit ak jinne Abdoulaye ñëw mu ne ko sëriñ man de am na ko fi ñëw nee na ma maa ëmb sangu nit ak jinne nii la mel ak nii mu ne ko kooku de ki ma ni ma maam Abdul Muttalib doon waxee maam Adama kooku Adama la. weeru ñaareel wa maam Chiche ñëw ni ko soxna si yaa ëmb sangu nit ak jinne mu nettaliwaat ko Abdoulaye Abdoulaye ni ko kooku yontu yàlla Chiche la. ni comme ñaari yoon nag wax nañ ma sama soxna moo ëmb sangu nit ak jinne naa dem wuti ndax balaa muy mucc ma am loo xam ni moom laa koy terale jënd bagage màkka yóbbu Cham jaay Alaaji Maalik nee na bi mu jaayee bagage ya bay wàññeeku Amina am ñaari wër ci ëmb ba ba mu ko ba aksi dëkk bu tuddu Abdallah dëkk bu tuddu abwa fala abdallah fato ñu ne alaaj malik bindal mu ni xadaa bi Abouwaha Abdullahi ina mada shahrani lil xamli hada al kalim juroom ñent wër la ko ëmb ñu ne alaaj malik ba juroom ñent wër yu maté dafa judd Maodo ñu tek na ci fukki fan ci la judd ñu ne ko kañ la judd alaaji Malick ni dañoo wuute ñii dañu ne yonent bi bëccëg la judd ñu ne yonent bi guddi la judd alaaji Malick ni ñoom ñëpp wax nañ dëgg ñu ne ko nu ñu waxee dëgg mu ni mat wa mi ngi commencé ca bëccëg waaye Seydina Muhammad mu nga judd ca fajar dee laylan wa tatmimuhu fil fajr ñu ne alaaji Malick nag xam nga nu mu mu ni xam naa ñu ne ko nan la yonent juddoo mu ni ni liir yi di juddoo jaarul fi liir yi di jaar ñu ne alaaji malik fan la jaar mu ne bala muy judd mom rasulullah altine la wax yaayam yaay amina amina diko deg mu ne ko damay judd tay serigne xam xale yi sax di wax waaye sallallahu alayhi wa bi mu war a juddu la ñëw ni yaayam tey lay juddu moom rasulullah te booy mi ci biiru yaayam ni yaayam tey ci lay juddu ñu ne Al Hadj Malick mu juddoo mu ni mat ba ma nga tàmbalee ca bëccëg la commencé matu ca fajar la yonent bi juddu Al Hadj nee na Amina nettali. nee na bi mu commencé matu moom Amina dafa gis benn picc bu weex tàll dugg fekk fi mu tëdd ci kawlal bi ci biir néeg bi mu jël laaf bi teg ci boppu Amina di ko raay di ko raay ba ci weew yi Amina nee na ci laa gëj a yëge benn métit ma tëdd ma jekk ba yàgg yëg sama jumbux bi fii sama diggu biir bi jumbux bi ni tàcc xar bi jumbox bi ne tàcc xar sang bu tedd baa ngay juddu yonent yàlla muhammad jiital ñaari tànkam yu tedd ya moom seydina muhammad ñëpp ñeenti baaraamam yi tàllal baaraamu sànnikaayam bii daal ni cëpp ci suuf xool penku daal ni jalaala rabbi rafiin ñu ne alaaji maalik bindal mu ne yuumi sababata miqbaadan asaabi ahu misal musabbihin yarna al ulwa laahima bi يسبح يرنو العلو فاهمني تغني سبابتها يا إله أبدا وأبدا مالنا يوني سبابته نقبادا عذابه مثل المسبي يغلو الغلوة زاهما الحاج مالنا رسول الله بمجدني لجدو alaji malik nee yumi manga talal mom tàllal bi a sababata baaraamu sànnikaayam bi bi juddu baram bi la talal alaji malik ne miqbadan ma nga ñëpp asaabi oo ya musul mu mu melni ku toog di taaya moom rasulullahi alaaji Maalik nee na yar nu ma ngay xool moom yonent bi alxul wa kaw zahima min muy borom téye moom rasulullah ñu ne alaaji Maalik lu mu wax mu ni lii la wax nii la téye loxo bi xool kaw asamaan ni jalaala rabbin rafiin maa ngi tudd màggu yàlla mu kawe mi moom Seydina Muhammad شغل حاج مالك نيموني جلال رب رفيع خال ان أتى وخيل سبع في تكبير ذي العظم الحاج مالك نينا دفا خول كاو جلال رب ما نتد ماغوك بروم رفيع بو يكتكو الحاج مالك نينا خالئنا أتى لول لا واخ بومو جيتو موم يونتبي وخيلا alaaji Malick nee na am na ñeneen ñu ni waxul loolu kabbara dafa kabbar dafa wax ni allahu akbar kabbara màggal na màgg kabbara kabbar na fi takbiiri ci màggal sil idami borom màgg gi mooy yàlla subhanahu wa taala ñu ne alaaji Malick bu mu juddoo mu mel déggal alaaji Malick a nga lay nettali rasulullahi sallallahu alayhi wa sallam bi mu juddoo nu mu mel alaaj Maalik nee na bi muy juddu wa axrajathu nazifan ma bihi xasarun limlaa wa min tiibihi a tatxiru li sutami alaaj Maalik nee na yonent bi muy juddu bi mu juddoo taqul deret taqul mere dafa indaale fanweeri bañ ak ñaar ñu tus ngel bët yi dagg jumbaxul rasulullahi sallallahu alayhi wa sallam dugal ko néegu góor noonu la judduwaale alaaj Maalik nee na wa axrajatu jur na ko moom yaayam nazifan muy aji set moom Seydina Muhammad ma bihi قل ينتبي خزر درت ما به أنقول ينتبي خزر مرت على جمارك من اللملا لتي على جمارك من اللملا لتي ومن تطهيره تلاب ينتبي لاب ومن تطهيره تتيجت ينتبي تي ومن تطهيره تباخ ينتبي باخ لجوكي باخ للاب أمي للسل سل من سيدنا محمد نينا على جمارك يلا نكبر رضي الله وعلى yàlla ñu yàlla fayal Seydil Hadj Malick El Hadj Malick nee na bi mu juddoo fekk Abdallah euh, Abdul Muttalib yónnee na ci Chafa Chafa moo nekkoon jigéen bi nga xam ne mooy sage-femme waa Makka mu yónnee ndaw ni ko demal nga ni Chafa Abdul Muttalib nee na Amina soxna si fi Abdoulaye bàyyi woon dafa tollu diggante mu ñëw dimbale ko Chafa daw bi mu ñëwee. nee maa ngi fekk Amina toog ci buntu néeg bi moom Safa nee na mu nuyoonteeg moom ni ko Amina Abdul Muttalib moo yónnee kër ga ni dangaa tollu diggante ma ñëw pour dimbale la mu ni ko mucc naa am naa doom mu ni ko ku rewle mu ne su rewle dee am moom moo rewle boppam mu ne ko ku la dimbale mu ne ko su dimbale dee am yonent bi moo ma dimbale ba judd sallallahu alayhi wa mu ne ko ana liir bi mu ni ko mi ngi ci biir néeg bi Safa nee na mu dugg fekk yonent bi ñu ngi ko tëree ci diggu lal bi Chafa nee ma dindi mbalaan min ko muure woon sëpp ko di ko xool nee na bi ma tiimee yonent bi nee na leer gi jóge ci jëwu yonent bi tàppe sama bët yi nee na leer gu mel ne noonu mosuma ko gis ba ma juddoo ba tey waaye nee na liir bu mel ne liir bi tamit li ma rew la yëpp mosumaa gis liir bu mel noonu ndax maa ngi ko gis mi ngi leer ndaañ moom Seydina Muhammad am xet gu neex moom Seydina Muhammad yore fanweeri bañ ak ñaar moom Seydina Muhammad ñu tusngal bët yi moom yonent bi sallallahu alayhi wa sallam dagg jumbox bi moom Seydina Muhammad làkkal ko moom Seydina Muhammad mu tëdd fi mu tëdd moom rasulullah Chafa nee na mu ñëwaat ni Amina kii kay léppam mat na xanaa ma defal ko gàllaaj gàllaaj ji mooy benn bagaan. goo xam ne mën na junni at ci màkk liir bu fa mës juddu bagaan googu la ñuy jël këpp la ko mu nekk sa gàllaaj sa muslaay Chafa dem génnee bagand ñëw fekk rasulullaay fi ñu ko tëral mu këpp ko bagand alaaji Maalik nee na bi ñu ko këppee bagand bagand ji dafa xar ñeenti xar-xar ñu ne alaaji Maalik lu tax bagaan gi xar ñeenti xar-xar alaaji Maalik ni bagaan gi gàllaaj la te yeneen bi mooy gàllaaju gàllaaj yi te gàllaaju gàllaaj yi kenn du ko gàllaajal ñu ne alaaji Maalik bindal mu ni wa fil wilaadati minhul jafnatun falaxat wal infilaaxu ujaabun inda xawmihimi اها صلى الله عليه وسلم اها بن اجا نانا هو مومي ينتبي سر سر الله سو بغي خم بوتو يالا ولا سكر يالا ولا فن يالا جنتي اي مبرم نانا خولال سيدنا محمد nee na secret bi tax yàlla bind àdduna bi yëpp amal li mu amal yëpp kenn la mooy Seydina Muhammad te samaam alaaji Malik wax na ko wa maa xalaqa arrahmanu shay'an li nafsihi siwa sayidil mahmudi wa huwa habibu ñu ne ko Maodo boobu duñ ko dégg ndax dafa dëgër mu ne wa innahu is ara da laaw nachatana abana min noorihi noora nabil alami kon lépp lu am yàlla nga ko amale ngir Seydina Muhammad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 بيعرف الرحمن وهو بصير nee na bii yi ci yonent bi xorifa la ñu xamee arrahmaanu kuy yàlla wax wa moom yonent bi al wasiilu mooy échelle bi jokk nit ñi ba ñu àgg ci yàlla subhaanahu wa taala nee na wax si taxool dawaaman faw yow doomu aadama bi nee na eh, foo toll dil tagg yonent yàlla Muhammad wala ngay julli ci Seydina Muhammad nee na képp koo xam ne foo toll yaa ngi tagg yonent bi sallallahu alayhi wa sallam yaa ngi julli ci yonent bi loo bëgg ci jàppandal jàppandal da ko am nee nee na bii ci tàgg yonent bi fastaxil na nga ko yitteloowoo yaa abdu yow jaam bi maa dumte feeg yaa ngi sax xaadiran di am kàttan ci loola nee na fa madaxu rasulullahi tagg yonent yàlla muhammad sallallahu alayhi wa sallam min azami suxri bokk na ci jenc yi gën a rëy ci jenc yi نانا فمات نانا من انا جابدو فمات رسول الله يا الله محمد احمد كتب احمد وعدتي موي سما ترزور على جاب نانا من على جاب نمو بغ سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم فمن يوم فك خير و ولا سما بو نردو nga redd ci bamu waw redd wa nam fay nekke faw سيدنا محمد la انا ايه cheikh Umar mi ñuy kañ alfuutiyu cheikh Alhaaji Malick mi ñuy kañ radiyallahu taala anhu saxaaba yee ñi kañ lañu am ñu ngi ko amee ci barke yonent bi moo tax mu ñu bii ci barke yonent bi naala la amee maa naala la maa la mu am arijaalu góor yàlla yi maraati ban ci ay daraja من الملك العلامي لول ما جيلي جيغي سي بور بو ماغي بي موي يالا بور بيغا خامني مايام يمي ماي جالات ان الحشر تي اوبنا سي تاكو كين مونو كو تاك الله يابني اي يونتي بي اي من باع الخيرات يونتي بي يوم ميغا خامني ياي بالو وايو يوي يا سيد الورى يا سيد الورى يوم ميغا خامني ياي سانغو ادنا اك الاخره دي سانغو ميليف يي yow mi nga xam ni la tàmbalee ci aadama ba Iisaa yow yaa mottali yonent yi moo tax yàlla ni woon maa kaana muhammadun aba ahadin min rijalikum walakin rasulallahi wa xaatimi nabiina sallallahu alayhi wa sallam eh alaaji abdu nee na yow yonent bi faa yëgal faa yëgal yow yonent bi ñun day nax lu ñun indal baa bi ñu ngi taxaw ci sa bunt yow Seydina Muhammad yaa Seydal Wara yonent bi nga xam ne yaay sangu àdduna ak àllaaxira bu ëllëgee yomal xiyaam bu jaam yépp dekkee bu ñëwul mu ñaaw dañuy dem ci adama mu ni sam bop la tal ñu dem ci musa mu ni sam bop la tal ñu dem ci isa mu ni sam bop la tal ñu dem ci Ibrahima mu ni sam bop la tal yonent bu ñu dem mu ni sam bop la tal affaire bi metti tar jek ba yag ñuy wàññeeku man Ibrahima ni kay leen gay delu ci wat ci man Ibrahima mu ni sama bop la tal waye xamna ko xamni bu ngeen deme ci mom soti ñu ni ko kan muy Fatimatu bàyyi Ruqaya bàyyi Umu Kalsum bàyyi abdullah bàyyi Ibrahima muy sayyiduna Muhammad sallallahu alaihi wa sallam ful bi yëpp àndandoo jëm ci Seydina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam wax naa la bu ñëpp ñëwee ci gannaawam la ñuy toog moom mooy jiitu bu ñëwee bu arash taxaw di wax yàlla boobaa dootul tudd Muhammad jamaal lañ koy woowee di woowee yàlla jalaal jamaal taxaw di wax ak jalaal ñoom ñaar ña ngay wax yonent baa ngay wax ak yàlla ñëpp ñu tekk alquran nee na fala tasmau illa hamzan doo dégg lu dul ngun ngun bi su keroog looy dégg am nga yaakaara maa ngi yaakaar de man di tiit naa loolu rek ngay dégg alaaji Malik nee na alaaji Malick nee na keroog si wal xibbi mawsuufun bi rahbin wa ruhbati alaaji Malick nee na keroog ku dul soppe bi muy Seyduna Muhammad day tiit bay lox léegi jamaal di yonent bi ma ngay waxanteeg jalaal di yàlla ba yàgg ñun ñëpp dégg benn kàbbar allahu akbar fekk yonent bee kàbbar bëgg julli ñaari rakka yàlla ni ko déedéet jëf amatul fay moo am sal tuxta washfa tushaffa wala sawfa yu'tika rabbuka fatarda kaay wax li nga bëgg ma defal la ko yow yonent bi yonent bi dëgg ñaari tànk ñëw taxaw ci kanamu yàlla sëgg ngir am kersa gi mu am kersa ci kanamu yàlla yàlla ni ko siggil sama soppe bi am na lu ma la waxoon ci suuratu duha maa la waxoon ni wala sawfa yu'tika rabbuka fatarda danaa la may sa xeet nga leen di dugal àjjana ba sa xol sedd yonent bi li muy rus rus yàlla day jàkkaarloog moom waaye keroog buy tontu yàlla day yàlla gannaaw كروس نقول لا يا ربي حتى واحد في النار من أمتي يلا سما خول دو سد فك بن نيت سما خيت دمنا الجنة نيكو دمال الجنة رسول الله دم الجنة اكسي فك بنت الجنة رضوان دي ملاك بي غارد الجنة أبي دان نيكو كوكو كان لا منيكو من لا محمد شفيع الله آتي باب الجنة يوم القيامة فاستفتحوا فقال الغاسن من أنت فقلت أنا محمد ابن عبد الله bu yomal xiyaamee yonent bi day ñëwal buntu àjjana fëgg kii gàdda àjjana ni kooku kan la mu ne ko man la Muhammad doomu Abdullah bu ko nee man la Muhammad doomu Abdullah malaaka bii gàdda àjjana ni ko yow la ma yàlla joxoon ndigal ni ma àjjana bu ma ko ubbi tànk ñëwoo mu daal di ubbi àjjana jël caabi ji teg ci loxo Seydina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam sallallahu alayhi wa sallam wax leen sallallahu alayhi wa sallam mu ubbi jël bu jël caabi àjjana ji teg ci loxo yonent bi sallallahu alayhi wa sallam yonent bi taxaw ci côté càmmooñu àjjana mu yoonu safara di wax benn baat di wax Fatima du wax Umu Kalsoom du wax Roqaya du wax Ibrahima du wax Xaasim du wax Abdullah Ablaay bari xam nga lan la soppi bi di wax day taxaw ci buntu àjjana ci côté bu féeteeg safara ndax ñu ne ko lu tax ngay taxawee foofu côté bi féeteeg safara te bañ a taxawee côté bi féeteeg àjjana mu ni damay bañ kenn romb ma ci gaa yi dem safara ci sama xeet taxaw nag di wax yàlla benn baat nan ko ummati ummati ummati maanaam sama xeet ñëw leen dugg àjjana ñuy àndandoo ak yonent bi sallallahu alayhi wa sallam di dugg àjjana nga dégg muy bàkk bàkk bi ñun tamit ñuy bàkk bàkk bi alhamdulillahi ladi hadana li hada wa ma kunna li nahtadiya lawla an hadana allah loo teg ورنسي نفسي أمتي أمتي يقول الإمام نانا بو الله يوم الخيام نجيت يا ننتي نجيت نيت ني بات بوب رالي وخ امتي امتي امتي امتي سما خير سما خير بجايكم نرجو شفاعة الناس لولا تخ نك الله جاب نيكو بجايكم سي سين باركه نرجو لي ني ياكار الشفاعة اك في الحصر الى يوم الخيام كنن سيني لخو تاك سيني تانك گم سيني بت نيو جيبل سيني بوب يو يوننتي بي رادي نكو xam nga lu tax ñu def noonu xam na ni yaay buntu yàlla ku bëgg dara ci yàlla na jaar ci yow fa anta baabulaayi ayum ri in ëttaawu min xayrika laa yadxulu ku bëgg dara ci yàlla te jaarul ci yow du ko am kon ñu takk bët takk loxo takk tànk ñëw jébbal la sunu bopp ngir nga yóbbu ñu ci yàlla ngir ñu am suñu sàkku teef suñu borom alaaji Abdu ne yonent bi fa anta yow rasulullahi la naa ñu xis ñun yaay suñu kaaraange yaay suñu wéeruwaay suñu jàqe itam ci sa gannaaw la ñuy làqatu na su mbir yi taree moo xam yi tar dafa feeñ wala dafa nëbbu benn làqatukaay la ñu am muy Seydina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam ay waay yonent bi alaaji ab doo ngay ñaan na ñëpp wax amin ma nga naan yonent bi axis naa xettali ñu fa laysa alxaalu déet sunu melokaan yaxfaa di nëbbu aleykumoo ci yéen رياض القرآن إمام سبيل yow mi nga xam ne yow yonent bi yaay xettali jaan yi yaay xettali mbindeef yi jëmaleen ci yoonu njub ndeysaan jërëjëf salaam aha ndeysaan alaaja doo ngi naan yonent bi yëgal ni ñun fi mu toll nii ñu ngi bëgg a lab waay waay na nga ñu xettali ci benke ñenke jamono kon guddi gaa ngoog yonent baa ngoog ilaahi farxam ilaahi farxam ilaahi sama borom farxam yàlla nga yërëm wax fu yàlla nga ñu baal wastur te faddulal wastur yàlla nga nga ñu suturaalal suñu ayib te faddulan ci sa baax ak say ngëneel ñu ngi la waay waay ñu ngi la koy ñaan yàlla yàlla nga ñu ko defal ci barke ki gën ci ki nga yónni ci mbindeef yi muy Seydina Muhammad amawlaay amawlaay eh yow yàlla suñu boroom yaa zal fadli yow borom ngëneel yi nga xam ne du jeex tey te du jeex ëllëg yow yàlla man alaaji Abdou su may wax li ci Moustapha juudu sa baax yow yàlla juudu ko sa tab juudu sa juudu ko sa man juudu ko sa def dal la nii moo ma tegtal yàlla yow laa xam ne yaay def lu baax yaa mën lu baax te di ko defal ñëpp looloo tax yàlla ma bëgg ma bëgg yow yàlla sa mbax gogo ak sa tab gogo nga lambu ñuko xam nga lu dess ma dal nañu aku fa suuy loxo yo xamni ñu ko talal di la ñaan raajina ñu nga yaakar yaakaar bi min ku mu mi ngi nekk ci yeen lepp lu ñuy sakku ci teddange ak ci ndimbal ñu ko yaakar fofu عبد عبد ولم ينل بجودك ما يرجى من الفوز ولا صلاة وتسليم على شفيع الورى محمد المرسل خير بني فخر سلم على sallallahu alayhi kon yeneen ci baa ngoog guddi gaa ngoog muy guddi goo xam ni mboolem guddi moo ci gën a foor moo ci gën a màgg li ci nekk ci aw yiw kenn xamul nu mu toll yëgoo ni guddi tey aljana aljana mboolem xobu garab bu fa nekkoon daaw ba guddi tey lay ruus daanu ci suuf meññet yi ruus daanu ci suuf yeneen xob jebbi yeneen meññet jebbi ngir guddi sayyidina Muhammad alaaji malik nee na na mu amee woon ci ëmb ba noonu lay amee waat ci juddu gi fax daratil ardu wal ashjaaru qad xamulat fa summiya al aamu aam al fati war rafami موتنا العام عام الفتح alaaji malik ne alaaji malik ne fagdaratil ardu nee na yonent bi atam ma fagdarati naat na al ardu suuf suuf si dafa naat taw bi bare garab yi sax garab yi meññ wal asiyaaru garab yëpp xat xamulat at moomu meññ nañu fa summi yi ñu tuddee alaamu at moomu aamal fatxi atum ubbee ubbee mi war rafe mi ak yomb yomb waaye xoolal teraanga bi yàlla defal Seydina Muhammad at mi ko yàlla ëmbee yàlla dafa wax jigéen ñi jigéen ñi ni bu benn jigéen ëmb ren jigéen jigéen bu ëmb na ne ko góor at mi yonent bi juddoo benn jigéen judduwul at moomu ay góor rekk a juddu pour teral Seydina Muhammad صلى الله عليه وسلم وللنساء أذن الرحمن والنساء أذن الرحمن حمل الذكور ذلك العام إكراما لمحترم وأذن دقلنا الرحمن بوري الله للنساء يلجيني جاءت ماما حمل الذكور من الجيجين بي أمب نغا أمب غور ذلك العام at moomu ñun lu tax mu ni ikraman pour teral li muxtarimi ñeel ki kon guddi gi guddi la goo xam ni ku ko màggal yàlla daf lay fay gis nga guddi gi guddi gi soo ko màggalee xam nga ban tiyaaba ngay am tiyaaba yi ñu àndoon ak yonent bi dem xare ji Badar moom ngay am soo ci defee sa dërëm sa sauvetage la àdduna ak àllaaxira soo toggee ñam joxe sa sauvetage la aduna ak alakhira ndax yonent bi mo tollu nonu ci yàlla yu goni mbolam jaamu yàlla yi ñi def mo xam julli la moo xam wor la mo xam joxe azaka la mo xam dem màkka la mo xam mo xam jaamu yàlla yeb man nga ko jaamu bu ëllëg yomal khiyam yàlla faye ko keneen bayila nga koy def keneen diko def di julli ba yomal khiyam julli yi nga doon julli tiyaa ba jëñ la ca fayoon ñu jël ko fay keneen koo ameeloon àq yow ñu bàyyi la ba mu des julli ci yonent bi salli bi mbolen jamu bo def ñu yomal xiyam man nañ ko faye bam dess julli ci yonent bi Cheikh al hajj malik ne allah taala an bu ñu jël tiyabay jam ji jam yi diko faye ba jëm ci julli ci yonent bi sallallahu alaihi wasallam ne ne yàlla danaan lolu bu ko ken laal ñu ni tax ken du ko laal mu ni ci sama waji la ko def muy Seydina Muhammad wa tabi'atu min qazaini l majidi لا من حسناتهم يؤديه الودود moo tax mbokk yi nañuy bare lu ñuy julli ci Seydina Muhammad nañuy bare lu ñuy julli ci yonent bi te damay wax ne yonent bi lu ñu julli ci moom doyul ndax li ñu yonent bi defal kenn mësuñu koo defal

يا كل من سمع صلوا على المصطفى يا كل من سمع ما ne la yonent bi li mu ñu defal amul kenn ku ñu ko mës a defal moom la yàlla yónni Jibril ci moom Jibril ñëw ànd ak malakul mawti fekk njool makkaa ngi feebar fukki fan ak ñeent malakul mawti ñëw nuyoo ci buntu kër gi yonent baa ngi ci biir néeg bi Fatima génn taxaw ñu ko inna rasula bi mashxulun bi nafsihi yonent bi tey talul kenn boppam la tal malakul mawti yokku baat bi jéggiwaat ay tànk taxawaat ni ko asalaamualeykum yaa ahla bayti rasul maa ngi leen di nuyu yéen waa kër yonent bi fatima ne ko e inna rasula la mashghulun bi nafsihi yonent bi tey talul kenn boppam la tal ndax booba sang baa ngi tawat ñu tuuti sang bi dégg baatam woo fatima mu ñëw mu ne ko bàyyi ko mu yegg si malakul mawti ñëw sukk ci kanamu rasulullahi sallallahu alayhi wa sallam Fatima xamul ni kii mooy malakul mawti waaye baay bi xam na ni kii mooy malakul mawti mi ngi ànd ak jibril yonent bi ni malakul mawti a jita zairan am jita xaabida moom rek la ko yàlla ma sa may mu ni malakul mawti ndax dangaa ñëw pour ziyaar si ma wala dangaa ñëw pour jël sama ruux malakul mawti ni ko ñaari ndigal yépp la ma yàlla jox yàlla bi ma yebal ma ñëw dafa ni ma bu ma demee bu ma ñëwee ci yow naa la laaj soo bëggee ma jël sa ruux tey yàlla ne soo bëggul ma bàyyi la nga dund ba heure bu la neexee amul ku ko ma a dégg moom rek moo ko mës a dégg kenn mësu ko dégg te keneen du ko dégg même maam Ibrahima alayhi salaatu wa salaam mi yàlla ni woon wa taxasallaahu Ibrahima xalila keroog bi malakul mawti ñëwee nuyu ko. mu fay ko mu ne ko may malakul mawti yàlla moo yoni Ibrahima pour mu jël sa ruux Ibrahima dafa tit ba ni keroog malakul mawti nga jaawale. mu ne ko jaawale wuma mu ne ko dedet xana yow jango aya ba malakul mawti ne ko ban aaya mo lay jàng mu ne ko wa takhasallahu Ibrahima khalilan yàlla neena ban may kharitam te kharit du def kharitam lu metti te de gisuma lu ko gëna metti kon yàlla waxu la bu la waxe Ibrahima waxu la bii Ibrahima khalilullah xeyna benen la la wax. malakul mawti daw ci yàlla ñu ko Ibrahima nee na yow yaa waxoon wa taxadallaahu Ibrahima xalila yaay xaritam te xarit du def xaritam lu metti kon beneen Ibrahima nga ma wax waaye du boobu yàlla ni malakul mawti demal nga ni Ibrahima. est-ce que xarit dana bañ a daje xaritam. yàlla ni ko malakul mawti demal nga ni Ibrahima baykaalitu est-ce que xarit dana bañ a daje xaritam man su ñëpp ne Bachirou Bane mooy sama xarit. su ma Bachirou Bane woowee dama ko war a wuy si su ñëpp ne Bachirou Bane mooy suma xarit Bachirou su ma ko woowee daf ma war a wuy si malakul moo dellu si ñu ko yàlla nee na est-ce que xarit dana bañ a dajeek xaritam la daloon Namruus ci Ibrahima fa buhita ledi kafara waaye fa buhita ledi amana mu weddam xamatul lu muy tontu mu ne ko sa borom nee na nga ñëw rek yaay xaritam dig bi jeexna waye tay dem rek waye sayyiduna muhammad nak sallallahu alayhi wa sallam sallallahu alayhi wa sallam sallallahu alayhi wa sallam keroog bi malakul mawti ñewé dafa sukk ci kanamam نكو يالا مو يوني جوخ ما ندغال سون نانغو غا فاتو تاي سولا نيهي غا توك في توك با ادونا سابي غا سوغام دي فاتو الاجي مالك نينا كيروك وختارا مولاه اسم الله غيره ان الزخارف ذا زهد وذا شمم ونكو بارنا بور دم ملك الموت نيو سي ويت جي pour commencer roch rou sayyidina muhammad sallallahu alaihi wasallam pour commencer rocci ruuhu sayidina mohammed sallallahu alayhi wa sallam nee bi malakul mawt commencé rocci ruu gi muni muni malakul mawt balma ma jibril dawal lajal ma sam borom xolal mom toujours problème yonenti bi du bopam du ay domam du ay soxnam yonenti bi ben problème la am xetam muniko lajal ma yàlla comme man la rousé won sama xet suma dewe rayma sama gannaaw lu muy rusé sama xeet mu ne ko yàlla nee wama kana maa muazibuhum wa anta fihim waaye wa maa kaana lahu muazibuhum wa hum yastaghfiruna fek ñu ngi sax ci baatu astaghfirullah yàlla neen duma leen def dara mu ne parena naa jibril nanguna malakul mawti jël sama ruu malakul mawti jege mu ne làmbal ma sama poche sama jiba nafa fi mu doon denc xaalisam ñu ñu ñu làmb fekk fa ñetti dërëm mu ne ñetti dërëm yi bu ma ko deewaalee bàyyi ko fi moo lu may wax yàlla Aïcha mu ne ko labbayka sang bi mu ne ko dawal gaaw ca jàkka ja ñoom Abaa Hurayrata ak miskin ñi fa nag nga jox leen ko ñu làkk ko ndax yonente kenn du ko doon dërëm te buggumaa bàyyi benn dërëm sama gannaaw jibril commencé di rocci ruugi yonent bi xoola sukkuraatam ni mu méttee benn sukkuraat métteewu sëriñ baa ngi ñëw leen sëriñ bi baal leen ma jóg leen taxaw jóg jóg jóg ndeysaan ñu jóg taxaw ba sëriñ bi ñëw jóg leen taxaw jóg leen taxaw الحمد والشكر والغرفان والنعم لله سبحانه ربا القدم الحمد والشكر والإرفان والنعم نعم لله سبحانه ربا له القدم تقدست ذاته كذاك أسماؤه لحو المحامد في الدارين والعظم الحمد والشكر والإرفان والنعم لله سبحانه ربا له القدم وجل خالقنا عن أن يكون له في ملكه أبداً ندن ولا قسيم الحمد والشكر والعرفان والنعم لله سبحانه ربا له القدم ثم صلاة على خير البرية من تشرفت بهدى والغرب والعجم الحمد والشكر والإرفان والنعم لله سبحانه ربا له القدم فكان مولده للقلق مكرمة وفاز من نيله الأكوان والأمم الحمد والشكر والإرفان والنعم لله سبحانه ربا له القدم وذاك في شهرنا شهر الربيع الذي بنوره انكشفت عن ذكرنا ظلم الحمد والشكر والإرفان والنعم لله سبحانه ربا له القدم وكيف لا وكفى من فضله شرفا ولادة الخير من تمت به شيم الحمد والشكر والشكر والإرفان والعظم لله سبحانه رب له القدم ودام شعر ربي عن فرر قتمت به نبوة والإحسان والقيم الحمد دنيان ñaan لب بب تيابا بو خمني ku màggal guddi juddu yonent bi yàlla dana la ko defal yàlla na nu ko yàlla defal defal ko jullit ñépp ci barke yonent bi sallallahu alayhi wa sallam sëriñ bi ñu ngi lay nuyu baax di la ziyaara kilifa yépp a ngi toog damay bañ a guddal pour jox sëriñ bi incha allah ndax ñépp moom la ñuy déglu woykat yi way nañu ba ñépp bég tabaarakallaahu yàlla na yàlla fay leen cheikhu Umar itam wax dëgg yàlla fi ñu ko fekk ci waxtaan am na solo lool kon yàlla dañ ko teewe ay at yu bare bare bare ànd ak wér ànd ak fekke te at mu jot yàlla na dàq te saa yu ñu ñëwee di ko teewe yàlla nañ fi fekk kilifa gi mu ànd ak wér ànd ak kàttan ci barke yonent bi sallallahu alayhi wa sallam su ko defee ñun ñëpp rek su ko defee ñun ñëpp rek ñu àndandoo déglu sëriñ bi tubaarakallaahu mu jox ñu li mu ñuy jox incha allahu rabbi su noppee ñaanal mbooloo mi ñu yëkkati jataay bi incha allah ba beneen yoon wasalaamualeykum wa rahmatullahi taala wa barakaatuhu محمد صلى الله عليه وسلم mbokk yi sëriñ bi nee na ginnaaw sant yàlla julli ci yonent bi sallallahu alayhi wa sallam ak di ñaan yàlla ngërëmam yàlla na nekk ci suñu sëriñ sëriñ cheikhana ahmad tijaani radiallahu taala an ak mboolem xalifaam yi ak muqaddamam yi ak taalibeem yi khalifa meɗen jokkorgal meɗen fewde makko mawlana cheikh alhaji umar fouti radiallahu taala anhu di ci beral nag suñu xalifa nga xam ni mooy suñu jokkuwaay ci moom di mawlana cheikh alhaji umarul foutiyu radiallahu taala anhu ñaagono allah jinnaɗo meɗen ceerno meɗen ceerno bachir moutaga baha cheikh mo radiallahu taala mo ganduɗa ko on joɗiɗen jonde mum o yo allah ɓoynumo ɗo jeese men ɗo ɓoyɗen hen di ñaan di ñaanal suñu sëriñ suñu wayjur Ceerno Mouhamadul mu Muntaga Daha Cheikh Oumar yàlla yàggal ka lool mu yàgg ñoo jiite nee na ci turam nag lañuy nuyoo mboolem ñi fi teew ñépp e ci ndigalam ñu ngi ziyaar képp ku fi teew dendaangal wonɓe ɗo debbo e gorko suka e mawɗo fof calminaama njuuraam Cerno nee na képp ku fi teew góor jigéen mag ak ndaw ñu ngi lay nuyu ñu ngi lay ziyaar mo limti juutna walla mo limti juuma ɗum waɗi e mbaawa limde miiɓe ɓee nee na xam ngeen ku lim juum moo tax du mën a lim kenn so mi wi miɗi haala o mi yejjita haala o mi yejjita mi haala o ga ne su ma bëggee rek dina am ñu ma bàyyi kon daal damay daal di del nuyu ñëpp rek kon noon somi haali yimɓe ɗiɗi tan walla yimɓe tato ɓen nawori fof en nee nag am na ñoo xam ni su ma leen tud tuddee rek ñett ba ñaar incha allahu ñooñu dinañ mën a ñëbbaa yóbbaali ñi ci des ñëpp sabu ko ɓuri heewde e fotnooɓe haalade ɓe fof eh, eh, usta imam mouhamadul silla haali ɗumen gila naane ne ñi fi teew te ñu war leen tudd ñi ci gën a bari imam mahtar silla mii tudd na leen soo haali ko min haali sumi haali ko kanko haali ne xam ngeen imaam maxtaar bu waxee moom ceerno moo wax ceerno bu waxee imaam maxtaar moo wax somi haali ko onon dental ngal kaali so tawi kanko haali kadi ko dental ngal fof kadi ɗo lomti kadi o haalan ɗumen nee na moom ceerno bu waxee xam leen yéen mbooloo mi yéen ñëpp a wax bu dee maxtaar a wax tamit nañu xam ni imaam maxtaar ñu ñëpp la wuutu ci max ci wax ji nde wonno enen fof ko ñëpp ci benn mbir rek lañ tënku somi haali inspecteur mouhamadou won walla doyen alhaji kaalil samba so ne way nomi haali bu waxee inspecteur mouhamadou won ak doyen kaalidou samba sow mel na ni wax na ñëpp nder ɗen ɗon inde ɗiɗi tan mi naanni heen na ci ñaar ñooñu rek la jaare dugal ci mbooleem ñi fi ñëpp mag ndaw góor ak jigéen mm, alhaji tamsir mbay naati ay waa cheikh ahmad tidiane ndoy naati nee na suñu bàyyi alhaji tamsir mbay duggaale na ci ak cheikh tidiane ndoy duggaale na ci ak alhaji demba moom it duggaale na ci en jonndiniima e ɗum ɗon tan wiide ɓe salminaade maɓɓe woni na di doylu ci loolu rek di leen wax ni yéen seen nuyoo moom mooy nuyoo jotaay bi haalde ɓe kadi woni haalde dental wax leen moom mooy wax ñi fi teew ñëpp wax jotaay bi ɗum noon kamɓe fof ceerno bachiru salminiiɓe duwanimama e nee na yéen ñëpp na ngeen xam ni ceerno bachiru muntaga daaha cheikh oumar nuyu na leen ñaanal na leen ci guddi gu tedd gii omo wonde meɗen oɗo jamma nder e boowal ko suuƴe ko feeñi fof nee na mu ngi ànd ak ñun ci guddi biir ak zahir ak batin te omo duwono en hen kala ko rewa ɗo allah yo allah jaɓan en nee na mu ngi ñu ciy ñaanal yalla lépp luñ fi jaamu yàlla yal na ko nangu euh, mokhtar ano e amda nabi en ɓe sallallahu Alaihi Wasallam on jaarama sëriñ bi nee pa pape mokhtar yow ak ñi doon tàgg seyduna muhammad nee na jërë ngeen jëf on kaali ko moƴƴi on kaali ko yooɗi on kaali ko selli nee na wax ngeen lu rafet wax ngeen lu wér fofu yaltaani kitaabullahi wa sunnati rasulihi sallallahu alayhi wa sallam wa siratu nabii sallallahu alayhi wa sallam atira nee na li ngeen fi wax yépp génnul ci téere yàlla bi ak sunna yonent yàlla muhammad ak siratu nabi sallallahu alayhi wa sallam so miɗa haala deftambi tan ko haalaaji mooɗon nee na moom daal bu nammee wax rek fa ña jaaroon rek fa fa lay jaar kon noon bonko bambarankoɓe kaali nee na waaye am suñu mbokk yi am na lu ñu wax ɓe mbi kaala konngol gootol moƴƴol aɗa firli firin ɗum haa laabi temedere ɓuri kaala konngol temedere ɗi ngala nafoore nee na nga wax benn kaddu di ci jaaraat di ci jaaraat ba muy téeméeri yoon moo gën nga wax téeméeri kaddu yoo xam ne amul benn solo benn kaddu bu am njëriñ benn kaddu bu am njëriñ aɗa haala ɗum aɗa firli firin nga koy wax di ko waxaat ba ba muy téeméer yoon ɓuri kala kongude temedde ngala fayida moo gën nga wax téeméeri kàddu yoo xam ne amuñ solo ɗum waɗi noon somi reftima e haalaji mon he ko reftade ko moƴƴi e ko moƴƴi tan nee na bu toppaatee ci liñ fi waxoon day mel ni jaaraat ci lu baax la rek kala ko kaalɗen nee na lépp luñ fi wax rek elle koye yewtere almudo me nen Cheikh Oumar ban haali ko haali ko tan ko ɗum tan kalten ne lépp lu mu fi wax rek dafay mel ni ci waxtaanu doomam bi fi toogoon léegi di Cheikh Oumar suñu doom Cheikh Oumar mi doon waxtaan sànq euh, ko ɗum tan mbiyeteɗen defta heen nee na day mel ni ci loolu rek la ñuy toppaat sabu geɗe tan tati woni e mawlidu nabi sallallahu alayhi wa nee na ñetti yëf rek ñoo nekk ci guddi yonent bi sallallahu alayhi wa sallam ko haalde jibinande makko e haalde jikku makko e yamiru e ɗoftaade jamiroje makko mooy lan wax jikkoom wax judd gi wax juddoom wax jikkoom topp ndigalam loolu mooy njëriñu màggal guddi sayyiduna muhammad sallallahu alayhi wa sallam te loolu wax nañ ko fi wa rasulullahi sallallahu alayhi wa sallam noon nee na yonent bi nag sallallahu alayhi wa sallam hay gooto waawa haaldude mo hawa gas haa kenn mënu koo waxandoo ba mu jeex tàkk sabu naa ne Pape Mokhtar haali ne sëñ Pape Mokhtar wax na fi léegi te haala makko kaa tongi ko haala jiyaaɓe allah ɓe fof dakkure mum ko te waxam ji tënk na lépp li nga xam ni moom la góoru yàlla yi d'accord jiyaaɓe allah arifina billahi en gonɗinɓe rasulullahi sallllahu alih w sallam e maqamaji muɗum towɗi to allah ɓe kamɓe fof ɓe dakkuri e konngol gotol nee na nitu yàlla yi nga xam ni ñoom ñoo déggal yonente bi salallahu alayhi wa sallam ci maqamaam yi ñoom ñëpp d'accord nañu ci benn kàddu kamɓe fof ɓe dakkori ko lawlahu ma hulikat chamsun wala qamarun wala nujumun wala lawhun wala qalamun so wonaano kanko rasulullahi sallallahu alih w sallam nee na ñoom nee nañu bu dul woon yonente bi sallallahu alayhi wa sallam a asaman taggataake yàlla du bind asamaan e ko woni taggataake lépp lu nekk ci biir asamaan yàlla du ko bind E e e jant beeg weer weeg biddew yi ars ak kursi yu ak lahu ak qalam ak malaaka yi nga xam ni ñu ngi ci kaw ak ajjana ak safara bu dul woon barkeem moom rasulillahi sallallahu alayhi wa sallam kon yàlla lii lépp yàlla du ko bind on kadine kala ko woni e dow leydi eko woni e nder leydi fof so wonaano barke barke barke makko ko rasulullah sallallahu alayhi wasallam batten tege tege la tamit lépp lu nekk ci kaw suuf ak biir suuf bu dul woon barkeem moom sayyiduna muhammad sallallahu alayhi wa sallam du ci bindara e nder ɗeɗo taggoji pop noon pape mouhtari wiiri ni allah suɓi hen ɓi adama o wi ɗum wala kad karramna bani adama nee na ci biir mbindeef yi yëpp yàlla tànn ci doomu aadama wax ci alxuraan e ngal ɗo ngal teddungal ngal teddiniri ɓiye adama ala ko teddiniri ɗum so wona saabu rasulullahi sallah sallam ne teranga gi nga xam ni moom la yàlla terale doomu aadama dara waralu ko lu dul kenn muy seyduna muhammad sallallahu alayhi wa sallam te denndangal tagoje ɗe fof o bindi o windiɗe ha o tagiɗe ha o gayni caggal muɗum to sakketto o tagi ɓi adama teddinde ɓi adama o ne mboolem binde fi yalla de ko bindi ba noppi sooga bindi doomu aadama ngir lan terale ko doomu aadama ɓe o winndi asmane o o winndi leydi ndi o winndi ko woni e asmane o winndi ko woni e leydi ɗum fof ko haa ɓii adama o eyo welto teddira ɗum wuura heen ngunda moƴƴam mo binndi asamane binndi licci nek binndi suuf binndi licci nek neene li lépp ngirlan doomu adama bi dundu ci tedd ci kadi ne welto heen mo contan ci kanko allah subahanahu wa taala neene moom yallah subahanahu wa taala nde o taggi asamane o bi mo bindee asamane mu wadde asmaan o ɓaleejo ɓi adam kula asmaan si munoon nekk asmaan bu ñuul bu ko defee nit ñi daal tiit walla wadum ɗum asmaan boɗeejo walla mu def ko asamaan ju xonk neɗɗo o hula bu ko nit ñi gisee tiit walla waɗa asmaan asmaan daneejo far far far neɗɗo o hula ne mu def ko walla mu def ko asman bu weex tàll ku ko gis tiit walla waɗ asmaan oolo walla mu def ko asamaan ju zone kono waɗaani ɗum fof waaye lii lépp yàlla defu ko waɗi asmaan o asmaan baxa asamaan bi baxa la ko def baxa ne saa yoo ko ndaaree mu bees ci sa ci sa eh, mi jagga eh. nee saa saa yoo ko xoolee mu bees ci say bët waaye yàlla yemul foofu yàlla daal di jël weer def ko ci asamaan si ngir nit ki mun a xool guddi bu ko defee xolam daal di dal waaye yàlla yemul foofu yàlla jël ay biddéew def ko ci asamaan si nee na biddéew yi ñii yii dañoo rëy yii dañoo sew yii xonq yii weex lépp rek ngir nit ki kontaan waaye yàlla yamul foofu bu demee ba guddi gi paase mu daldi indi naaj bu ko defee nit ki di xool naaj bi ba mun a gis li muy liggéey ci bëccëg bi naaj bi tamit daal di la jëriñ ci say mbooleem li nga yëngu jëriñ la ci sa ci sa ci sa wér wér gu yaram ak ci li ngay lekk lépp lu ñuy lekk naaj bi ñoral ko waaye yàlla yamul foofu mu del ay jël ay niir def ko ci asamaan si lépp rek ngir nit ki bañ a bañ bañ a xaddi bu ko xoolee rek kontaan saa yoo xoolee rek mu daal di beesaat ci say bët yàlla daal di bind suuf mu def ko ay façon wi façon yu suuf fi ñi fii di ay montagne fii mu def ko suuf fii mu def ko ay ay àllu àllu àllu àllu yu sëkk fii mu def ko ñax ñax fii mu def ci ay xeer في مدافع أي نخ في مدافع أي جيج ليلب غير نكي نكتي مقدر في تيجي صوبك بامو كونتان واي لالا لالا يالا سخلة تدوم آدم أبي وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون ليلب يالا بندو نكي لدول مجامكو جامو يالا جوجنا jaamu yàlla go xamni ñaari façon la jaamu yàlla bo xam dafa war jaamu yàlla gogu lépp lo xalat lo xam ak lo xamul yow di ha mu ngi ci jaamu yàlla wa ma min shay'in illa yasbihu bihamdi walakin la tafqahuna tasbihahum nee na picc rabbi nee yi nee na garab yi ndox yi ak lépp lu yàlla bind lépp a ngi jaamu yàlla waaye ni ñuy jaamu yàlla nag lu dul ñu yàlla xamal ñooñ duñ ko xam waaye ñu ngi jaamu yàlla de nee na nit ki julli jullit bi yéeféer bi de jaamu yàlla bu ko neexee ak bu ko naqaree waaye jaamu yàlla yépp na ko fekkoon ni nee na jaaruñu ko ci sunna yonent yàlla Muhammad salaa salaam moo tax amul tiyaaba jaamu yàlla gi am tiyaaba e mooy jaamu yàlla boo xam dañ koo jaarale ci sunna yonent yàlla Muhammad salaa salaam nee na même yonent yi jiitu woon kenn ku nekk ci ñoom nee na àggale na jotal nga sa mission wuutu yonent yàlla Muhammad salaa salaam e nee na sànq am na ku ko fi wax. wala am na fu ñu ko wax waaye nag Cheikh Sidi Hadji Malick radiyallahu anhu indi na ko ci miimiyaam bi wa xalqul axlaaqi baasul anbiya li zuhuri wallahi nee na mboolem mbinde fi ak mboolem yonent yi dafa mel ni ñoom ay lancement lañu rek film bi ñëwagul rasulullahi salaa sallam moom mooy mooy ndey mbind ji nee bi mu ñëwee rek nee na fa la yëpp yam nee na jaamu gi muy jaamu yàlla nee na bokkut ak jaamu yàlla yale jaamoom yàlla moom yonent bi moo gën a nekk maam organisation moo gën a rafet moo gën a am condition nee na yonent yëpp gisoo seen téere doo ci gis qabla doo ci gis baada wala nga gis si takbiratul ihram wala salaamu doo ko ca gis rasulullah salaa salaam jaamu gi muy jaamu yàlla dañ koo préparé bala ngaa ciy dugg nga jaar fii jóge fii jaar ci fee jóge ci lii dem ci lee ba nga àgg ci jaamu yàlla bi ci ci wàllu julli nee nag naka fekkoon loolu la nit di def subaa ngoon guddeeg bëccëg lu juuti yëpp bu fede bu dee yaa ngi dugg ci julli gi foofu nag sa yaram bi set bu sa yaram bi setee am na zahir am na baatin zahir bi ni ko sari a waxee la baatin bi ni ko aarifina billahi waxee la nee na njàpp li nee na bu bu fekkee ni yaram bi set bi weesu na nee na njàpp mooy ñëw nee na njàpp bu ñëwee moom i dafa am zahir ni ko sharia waxe am baatin ni ko aarifina billahi waxe nee na bu loolu weesu nee na noddu daal di ñëw noddu gi nag ni ko sharia waxee la zahir bi ni ko aarifina billahi jàngale loolu mooy baatin bi nee na bu ko defee liqaam ñëw bu liqaam ñëwee zahir bi ni ko sariya waxee la baatin bi ni ko aarifina billahi waxee la ba mu des nag jul taxaw jàkkaar ak sa borom nee na foofu nag mooy lépp nga daal di yëkkati sa ñaari loxo lépp lu dul yàlla sànni naa ko ci ginnaaw ah yo yàlla yàlla moo fees ci man gisuma dégguma awma munuma lu dul li ma yàlla may rek nga daal di yëkkati sa loxo yi tàllal ko nga mel ni ku ñu olimee awma dara awma xawma munuma yoruma al yàlla moo xam yàlla moo mun yàlla moo am yàlla mi nga xam ne moo mel ni lépp lu rëy loo xam ne war nañ koy réer moom moo moo gën a rëy nga ni allahu akbaru mun na nga wax ni allahu kabiru di allahu kabiru allah yàlla ku màgg la allahu akbaru moo gën a feddali ko nag allahu akbaru moo mooy moo di tekki yàlla moo gën a rëy moo gën a màgg ci lépp luy màgg loolu moo waral lépp looy màggal ah, boo ko màggalewul ci yàlla doo ci am yàlla nitu yàlla bu dee wali yàlla ji sëriñ ak kum mun a doon boo koy màggal na fekk yaa ngi ciy gis yàlla boo ci gisul yàlla boo ko màggale kooku boo ko màggalee wala nga nga màgg fa xam borom xam-xam boobu nee na ah du du dindi moom màgg la du dindi cëram waaye yow doo fa am cër nee na cër goo xam ni dañ koy peesal suba yowmal qiyaamati ci sa tiyaaba mooy allahu akbaru boo ne allahu akbaru loolu mooy tekki lépp lu màgg rek ak nu mun a màggee yàlla moo gën a màgg nee na waaw na ko comme ko wax nga ko ci sa làmmiñ ah dafa war a feeñ ci say jëf nag kon nag lépp looy màggal na nga ko màggale yàlla nga gis ci yàlla yàlla nag duñ ko gis mu nangul la lu dul danga koo jaarale ci yonent bi salaa sallam yonent bi salaa sallam moom mooy buntu jëm ci yàlla kon nga commencé turu yàlla بغينا ماغ تي ظاهر تي مولم تور يالا ييب غاني باسمي الله موي بسم الله الرحمن الرحيم باسمي الله نانا فملني بوني باسمي الله نانا ام لولا لاج لام موي يالله الله نانا لاج بي دالدي تونتو بوبام nee na allahu mooy rahman allahu mooy rahim yàlla mi nga xam ne mooy rahman yàlla mi nga xam ne mooy rahim nee na nga taxaw di ko màggal ak fi nga taxaw jàkkaarloog moom waaw loo koy màggale nag maa ngi koy màggale ci sant ko ci xéewal yi ma defal moo ma bind bi ma bindee mu mu dundal ma bima dundale mu may ma xel mu may xel mu mu di motal samay cieur dara dara dara tegul ci man neena na yalla dara warul ci mom mom kay mom la neex rek mu def li mu defaral ma li nak munu na ma def ma juddu rek ma ma ma juddu ma di bañ mot wala ma juddu ma bañ a am xel wala ma judd ma bañ a nekk jullit lii lépp oh, yàlla baaxal na ma baaxee na ma bind na ma oh, dundal ma oh, mu ma matal samay cër may ma xel mu def ma jullit waa lan laa war a defal yàlla mënu ma ko defal dara lu dul ma sant ko eh, ak ci lim ma defal comme ni ko Thierno Cheikh Oumar Ban waxee tànk yàlla bind la may la ngay gis nga ne sa bët yi ngay gisee ah, ngay gis lépp te doo ko yëg ah, nga gis fii ba ci kaw asamaan nga gis fii lu ñuy jaar ay kilomètres nga daal di xool lii lépp nit ñëpp nga gis leen waaye ki sa xel gën a jàpp moom ngay gën a bàyyi xel moom ngay gis baatinam ji gis jëmmam waaye fekk du dara maanaam fekk dara mettul ci say bët nee na bu bët yi di ubbeeku doo ko gis doo ko yëg nee na bu ñuy tëju tamit doo ko yëg booy nelaw doo ko yëg boo yeewoo doo ko yëg nee na lii ah nga ni lii ku la ko defal war nga koo yàlla sant muy yàlla nee na waaye tuuti na nag nit ki toog ne alhamdulillah ci ci ci xéewal gi nga xam ne yàlla may na ko may gis ci samay bët yi may gis ni ma ma ciy sant yàlla nee na bëriwul ñu koy def nee na sa taw sa nopp yi ngay déggee tamit noonu nee na sa gémmiñ gi ngay lekkee noonu ak ne lekk gi ak naan gi ak wax ji lii la lii yëpp ay xéewal yi la yàlla defal la nee na sa loxo yi ak sa tànk yi nee li ngay téye ak ni nga koy liggéeyee ni ngay dox di ñëw di jóg di toog lépp ci ndimbalu yàlla نانا دارا لتي هم غني لي وارنغا تي سانت يالا واي لي غينا لي لب نك موي نعمه الاسلام موي خيوول غي لي يالا ما نك جوليت نانا فوف نغا واخ الحمد لله رب العالمين نون لا ديمي نون لا ديمي بوم اغتي اياك نعبد واياك نستعين بوم اغتي اهدنا الصراط المستقيم لب دا فا ام يون نانا لا يون بنان مي صراط المستقيم صراط المستقيم سيرين بنا نانا لو جافلا مو مو نانا مو مو تخ فا سا يو تخوي دي ديوك سو بروم نان بودي فريل لا بودي فراتا لا بودي نافلا لا غي نان يالا يالا يالا تك تي سير تي يون صراط المستقيم اهدنا الصراط المستقيم اللي مو ديوك nee dafa mel ni dafa am lu lay wax ni ci biir faatiha bi siraatal mustaqim nee na yoon bu jub la waaye na nga moytu naa ñaari dévié yu ñu ngi foofu nee déviation bi almaxdubi alayhim la beneen déviation bi mooy wala mooy ad daalina daalina nag ak moo ñoom mudillina rek nee na yoon bi nga xam ne ñoom la yàlla mere ak yoon ñi nga xam dañoo réer ak ñu wala ñi nga xam dañuy réeral nee na foofu bu ñu fa naree dugg mun nañ cee yaatal yaatal lu bëree bëri ñu bëree ngi naan waa yahuud la ak nasaara nee na tey tey nee na am na ci biir lislaam nee na mu ngi ci biir tasawuf nee na mu ngi ci turqi ñi maxdu bi ak daalin nee na tasawuf am na lu ko taxoon jóg tasawuf la moko taxon jog sa diine wir nga jokk ci jaamu yalla ngir nga am ngërëmal yalla waye tay nak da ngay dem ci nitu yalla Muni la man ma yalla nga daal di yem nga ni wala nga gis nitu yalla borom mi may la nga def ko yalla allahu akbar neen xam nga ni yalla dila ne mere yalla mi nga waron wuti yàlla bi ma lay bind sëriñ fekkewul euh, bi mu lay def nit sëriñ fekkewul bi mu lay may lii mu lay may sëriñ fekkewul waaye am nga droit wuti sëriñ nag ne ndax sëriñ comme docteur la rek docteur boo demee ci moom day fekk nga nga nga wéradi nee na kooku na na am ak laay laaye biir boo xam ne bo ñëwee ci mom nga wax ko sa jangor nee na bu dee mun na la safara mu saafara la rek bu dee na la safara nga dal di dem ci say soxla waaye bo ñëwee ci docteur nga mën la fi lepp ngi lepp lay fajj man duma la bindal ordonnance do do do nan garab ah, ah, nee do do do diw garab lepp man la nee wër nga nga dal di nangulol nee boo ba moytul ah jàngoro ji day yokk rek nee na moo moo loolu tax almaxdubi alayhim nee boo dégloo réseaux sociaux yi da dégg yenn mbir yi nga xam ni lii boo waxee yàlla kontaanu ci boo waxul yàlla kontaanu ci sëriñ bi nee xam lépp wax lépp yàq lépp rek ولا دالينا من خاوما دارا من خاوما دارا ما عندما ينك سري من دي لا خمال يالا ما أقل لك يالا فك من خاوما يالا كو خمال دارا نلا لا خمال يالولو نانا موسول جيم دي جيجواي موسو ما دم جيجواي نلا جيوني جيجواي نيلا دي لا ملال جيجواي نانا كوكو بوكو تكو ديك جيجواي nee na borom xam-xam buy xamle ak ku xamul duñu benn walladina laa yaalamun wallahi sëriñ bi nee na ñi xam ak ñi xamul yamuñu ñooñu ñooy wala daalin siraat alladina anamta alayhim ñooñu yàlla wax nañu leen ci ci alquran min annabiyina wa siddiqin wa suhadaay wasaalihin nabiyina yi ñoom passé nañu siddiqina yi ñoom tamit jot leen yombul suhadaaw yi ñoom tamit maanaam yombul waaye saalixuuna yi nag ñu ngi fi nee na saalixu nag boo ko toppee nee na salaax bi mooy maanaam njubam gi mbaaxam gi dina ñëw ci yow ba nga nekkaat saalixu nee nee na dafa jaxasoog lu ñuy wax daalixu ne boo yaakaaree kii saalixu la nga dem ci moom nee na li gën a rëy li gën a am solo ci gàmm yi ñuy def mooy topp ci sunna yonent la Muhammad salaa sallam théorie bi jeex na fii amul ku fi xamul théorie yonent bi salaa sallam yonent bi ku baax la comme ni ñu ko waxee sànq yonent bi ku yërma mun bëri yërmande la <coughs> ku tabe la ku ku mun a jokk mbokk la yonent bi ku wàcc la loolu kay ñëpp dégg nañ ko nee li ci des mooy ndax ñun jikko woo nañu jikko yi nee na pratique bi moo des waaye théorie moom passé na théorie bi jeex na pratique bi bu ñu ko defee ci jikko yonent bi salaa salaam nee na benn fitna du am nee na boo gisee fitna yi bëri am na ku ci pratique wul yal na yàlla may ñu def ñu may ñu ni pratiquer nee na jërëjëf ne boo gisee sànq nangu ko wax Pape Makhtar wax na ko depuis sànq ci fi fi ko fi ko Seydil Hadji Malick si waxee radiallahu anhu ci condition yi gàmmu nee na bi nga ko waxee ba noppi nag moom it mun sañu faa jël waxam teg ko fa nag nee ndax ñoom ñoom lañu ñu nit ñun lañu ñoom fi ñu nekkee ñoom dañuy ñaan yàlla taas ñu ci seen barke waaye sañuñu dem fa ba mu mel ni ñun ba mu mel ni dafa am ñu lu xam wala dafa am lu ñu mun waaye am nañu yaakaar nag nee bu ñu delloo ci suñu yoon a tijaaniya salaatul fatih li ma uliq am nañ ci yaakaare bépp njumte bu ñu def bu dee def nañu salaatul fatih li ma uliq yàlla dinañu jéggal njumte yooyu ngir barke sayyiduna muhammad salaa sallam naka fekkoon ni salaatul fatili ma uliq comme niñ ko fexee sànq Cheikh Oumar def naa moo ko wax sànq moom ma la conclusion waxtaanam alayhi marra صلى عليه الله عشر مرات نانا جرجف نانا صلاة على النبي ولا صلاة الفاتح لما أغلق لب صلاة لرك موم رك موم منو ووتو سرين نانا سن سرين سي نانا نيو بودي جامونو دمنا با جاخاسو خمو فو جيم نانا وقت جي بري ku nekk di naan man la man la man la na nga téye ci safala salaatul fatih na nga téye ci salaatu ala nabi ak siixa bu mu mun a doon ne boo ci téye salaatu bi du la bàyyi ba mu dugal la ci xadara sayiduna muhammad salaa sallam salaatu ala nabi bu mu mun a doon nag salaatul fatih nag boobu nag boo ko téye bàyyi woo fu mu lay yóbbu nee na fi mu la yóbbu da la yóbbu foo xam ni bët musu fa teg tegu yóbbu la foo xam ni nopp musu koo dalo musu yóbbu la foo xam ni kenn musu koo xalaat muy xadaratullahi subhanahu wa taala jàpp leen ci salaatu ala nabi jàpp leen ci salaatu ala nabi jàpp leen ci salaatu ala nabi nee na suñu sëriñ Cheikhana Ahmad Tijaani radiallahu taala an nee na lépp li mu doon liggéey ak ak ay turu yàlla yoo xam ni da ko doon jubloo ci yàlla yonent bi salaa salaam nee na ko nee na teg ko téel ci salaatul faati ne mboolem jaamu yàlla xeetu jaamu yàlla yoo doon jaamoo yàlla li ma doon jaamoo yàlla yépp mu ngi ci biir salaatul faati ndax ismullahi al azam mu ngi ci biir ismullahi al azam bi nga xam ni lépp lu ñu ñaanee yàlla yàlla da koy loo ko ñaanee yàlla rek yàlla defal la ko loolu boo ko amee am nga lépp Ceerno nee na nañu téye ci salaatul fatihi li ma awliq nee na même bu dee benn per par jour yow te def ko rek képp koo gis mu dëng nee ma muy sa mbokk nee na nee ko del def salaatul fatih benn yoon bu mu bu dee bis même bu dee benn yoon par jour bu ko neexee dana dina baax ngir barke rasulillah salaa sallam bu ko naqare dina jub ngir barke rasulillah salaa sallam moom na tey ci salaatul fatih rek nee na soxlawul nga koy naan bàyyil nee ko saa xëy rek defal benn salaatul fatih nee na bu dee ci sa njaboot bu dee même bu dee jub nañu na nga leen ci salatul fatiha kep ko ci khir ci salatul fatiha siratal mustaqim be nga xam dafa jafe yalla dina len ci tek lolou nak lolou mo nekkon kado bu mu len bu mu ñu don may ñun ñep nañ japp ci salatul fatiha même bu dé benn yoon bo jappé sa ak sa wazifa nee da ngay da ah? yaa ngi def salaatul fatih waaye nag booy def salaatul fatih ginnaaw laazim ak wazifa loolu mooy air supplémentaire kii c'est français bi air supplémentaire waaw nee na dafa mel ni embauché nañ la ci liggéey ngay fayeeku nga yaa ngi xëy ci waxtu di wàcc ci waxtu yow def nga sa droit waaye nag bu fekkee ni dangaa may liggéey bi ci sa temps même dimanche da nga koy xëy samedi da nga koy xëy yow guddi da nga koy xëy ba société bi société résultat xam nga ni directeur bi dina kontaan ci yow loolu mooy salaatul fatihi supplémentaire ginnaaw sa wazifa ak sa laazim nañ tey ci salaatul fatihi ginnaaw laazim ak wazifa nañu tey ci salaatul fatihi képp ku tey ci salaatul fatihi nee na sa njaboot du yàqu yow doo yàqule incha allah yowmal qiyaamati ni ko Pam waxee sànq bu demee ba yonent Yàlla Muhammad salaa salaam nee na mbir mi daal di jafe daal metti ñun ñëpp daal di jaaxle dem ci suñu maam Adama Adama ne mënuma ci dara dem nañ ci Ibrahima dem nañ ci Nuux dem nañ ci Isaa dem nañ ci Muusa ñu ñëw ci yonent bi salaa salaam buy dugg ajjana mu ngi taxaw côté safara bi yow taalibi cheikh bi ñuy dugg ajjana ci bila xisaabin wala iqaab bi nga bokk nee na waxul taalibi cheikh sax nee na borom salaatul fatih bi nee na taalibi cheikh moom beneen façon la taalibi cheikh moom beneen façon la nee na nañu góor góorlu ci salaatul fatih nee na waxtu wi jage na mun nañu mun nañu mun nañu préparer sëriñ bi nee képp koo xam ni amoo njàpp rek nga dam dem yeesala ci nee na ku nekk ci ñun fi nga toog na nga jàng salaatul faat faati fukk yoon ak ñaar yal na yàlla may ñu barke salaatul faati yal na yàlla may ñu barke salaatul faati yal na yàlla may ñu barke salaatul faatiha yal na yàlla def ci yéen barke yal na yàlla def ci njaboot gi barke yal na yàlla def ci lépp lu ñu fàggu barke yal na yàlla may ñu wér yal na yàlla may ñu wérle yal na yàlla may ñu fan yu gudd yal na yàlla may ñu mujj gu rafet yal na yàlla yal defal jàmm yal na yàlla defal jàmm ak ci suñuy yaram yàlla na yàlla defal jàmm ci suñuy kër yàlla na yàlla defal ñu jàmm ci suñuy dëkk yàlla na yàlla defal ñu jàmm ci suñu di réew mii yàlla na yàlla defal jàmm ak mboole mi réew yi yoo xam ne bii ñu ngi wër Sénégal yàlla na yàlla defal ñu jàmm ci umma islam bi bi yëpp korona ak lu dul korona lépp loo xam ne ay jafe-jafe la yàlla nañu ko yàlla teggil yàlla yóbbu ko foo xam ne du fa kenn bi jaayi rasulillahi sallallahu alayhi wasallam lépp lu ñu bëgg yàlla nañu ko yàlla yombalal defal ñu ci jàmm lépp lu ñuy ragal yàlla na doon suñu kumpa adduna ak àllaaxira amin bi jaayi rasulillahi sallallahu alayhi na yàlla def sopp yonente sallallahu alayhi wasallam ci suñuy xol ba suñu xol yi fees del del sopp yonente bi sopp yonente bi sallallahu ba mu tuuru ci suñuy cër nee na suñu cër yi daal di tënku ci sunna yonent bi salaa salaam na loolu yomb na ci yàlla yàlla nañu ko yàlla defal nee na suñu xila kilifa diine yi yàlla na yàlla yàggal leen ci suñu kanam suñu kilifa aada yi ñoom it na yàlla wéral leen yàlla nañu yàlla wéral wéral ñee wéral leen yàlla nañu yàlla may kattan may leen ko yàlla nañu yàlla may leen xel yu baax ni ñuy mun a yore réew yi bi jaay rasulullah salaa salaam xale yi yal na ñun xale yi yal nañu yàlla def ay mag yal na yàlla barkeel ñu ñaa na jigéen ñi jërë ngeen jëf lépp dafa baax waaye lépp yéen la ci lekk yeeg naan yeeg lépp ba ci ñëw ñëw ñëw teel ak déglu lépp yéen la Cerno na na yéen jigéen ñi yal na yàlla def ci yéen barke yal na yàlla defal barke képp koo xam ne yaa ngi ci sëy yal na ci yàlla def barke ku ci am ku ci nekkul ci sëy yal na la yàlla may sëy gu am barke képp képp koo xam ne am na ci képp koo xam ne yaa ngi fi te bëgg am borom kër walla nga am njaboot goo xam ne bëgg nañu amay borom kër yal na leen yàlla yombalal loolu ko képp koo xam ne yaa ngi ciy wut doom yal na yàlla yombalal la ñi fi nekk ñëpp képp koo xam ne yaa ngi ciy liggéey yal na ci yàlla defal sutura yal nañ yàlla may ndam yal na la yal na ci yàlla defal ak sutura koo xam ne amoo foo yëngu yal na la yàlla may foo yëngu yàlla defal la ci barke bi jaay rasulillahi salaa sallam liñ fi wax ak luñ ñu waxul yépp yàlla xam na yàlla nañu ko yàlla defal nee na daan na nag at bu ne ñu génn xëdde yonent bi salaa salaam ndax ay sëti Cheikh na Tijaani ñëw nañ fi nee na waaye nag dañoo yàkkamti woon nee na ginnaaw ba bàyyi nañ béréb yépp ñëw fii ngir wuy suñu nee na bëgg na insha allah bu bu ko yàlla jàppandele képp koo xam ni yor nga dara bu dee du la lor nga indi fii adaya yonent bi salaa salaam incha allahu teero nee na dina àgg ci ñoom nee na bu soobee yàlla dina àgg ci ñoom nee na koo xam ne amoo julli ci yonent bi salaa salaam julli ci yonent bi salaa salaam bi dina dina wuutu adaaya gi adaaya gi nee na buñ ko defee ba noppi ñu def salaatul faatihi fukki yoon ak ñaar ñu daal ñaan incha allahu na addiya ji ñëw nee na mu gaaw rek mu gaaw xadee yonti yàlla muhammad sallallahu alayhi wa sallam cer mu gaaw addi yonent bi ده يا سريف ñi ci biti yéen ñi ci ëtt bi addi yonent bi nee na ngeen ñëw ñëw leen nee na ngeen ñëw ñu def salaatul fatih bi yéen ñi doon laaj addiya ji nee na def fatiha salaatu fatihi fukki yoon ak ñaar bu ko defee ñu ñaan incha allah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 بها من جميع الأهوال والآفات وتقضي لنا بها جميع الحاجات وتنفرنا بها من جميع السيئات وترفعنا بها أعلى الدرجات وتبلغنا بها أقصى الغايات من جميع الخيرات في الحياة وبعد الممات إن الله وملائكته يصلون على النبي sallallahu yàlla nañu ko defaat déwén alaali oɗo ko jonɗomi nel momi koye moon giɗo ame muhammad he yimɓe keɗoɗe lemseede goɗoɗe kala needi ñeɗe ɗe ina ɓeyida moƴƴere min tawi dari watma mbiram min woni gawlo kala hunde ngam ma woodira qurasiyu seyduna mouhammad holi jaltinaɗo e maayo laamgo ngo tunwata e ndiyam dane jam keelelam qurasiyu yidde annabi fooli bernam yidde yidde annabi fooli ɓerndam wasde yidde mo yomni ɓandam sunnode wontino sago am wirnota muy faabu diine jiɗɗo rasulallahi mbaɗa juuɗe dow yidde annabi fooli ɓerndam yidde annabi fooli ɓerdam wasde yidde mo yomni ɓandam sinnade wontino sago am wirnota komi faabu diine mbe jaara arabi towo koofol juuma gite ko joom yelde moƴƴere juutadaande ko nabi basirun laaba geɗe ko jom tiina toonde uurɗo jom sayane yumre mbaɗen juuɗe ɗo umonini rasulallahi <clears throat> hayno ñollolaɗo beltoɗe o jinganama parnoɗe leñol o jinganama yayno ñollolaɗo beltoɗe o jinganama parnoɗe bada juuɗe man dow hayra ñallalaɗo allahu rokki meɗen numoro kaani xalku fo jingana haya fuuta ngummeji men nabi min labi jimɗo ona be hayo man ɗo ɓurɗo fo male naata aljanna kadi wele fuuta ngummeeji men nabi min labi jimɗo o nabi hayawol ko allah rokki meɗen ɗum o rokkani halku fo mbaɗa juuɗe mon dow hayo allah waɗani nandoma leydi kame kammo tawa dow haya Allah wala ni nando ma leydi kame kam motoɗo juuɗo mon dow haya Allah taguma e nuru muɗum nuru ma e gibindi fo wallahi haya Allah rokki meɗen ɗum ya allah waɗani nandoma leydi kame kam to waɗo haya min dariɗo kim antuma min min dariɗo kim gawlo ma hay amin ari ɗaki mantuma min wela wonde gawloma hayo jamma jibinede hayo jamma jibinede hayo jamma jibinede hayo jamma jibinede hayo jamma jibinede hayo jamma jibinede hayo jamma jibinede umme Hayo camma cibine de. Hayo camma cibine de. Hayo camma cibine de. Gumme mavnine nebi. Gumme mavnine nebi. Gumme mavnine nebi. Gumme mavnine nebi. Gumme mavnine nebi. Gumme mavnine nebi. Ahmet. Gumme mavnine nebi. Gumme mavnine nebi. Hayo camma cibine de. hayo jamma jibinede hayo jamma jibinede gumme mawnine nabi gumme nabi gumme mawnine nabi hayo mawnine nabi hayo mawnine nabi a ah, mawnine nabi a ah, mawnine nabi he eh, mawnine mbe jara arab to wo juuma gite ko jom yelde moo der juuta daan bii basiiru laaba gede ko jom tiide toonde laaba gede hayo laaba gede ko jom hayo laaba gede ko jom hayo laaba gede ko hayo laaba gede ko mon do laaba gede rasulalayi laaba gede rasulalayi laaba gede mbaɗo juuɗe mon ɗo laabagere mbaɗo juuɗe mon ɗo laabagere yo juuɗe njaha dow laabagere yo juuɗe njaha dow laabagere yo juuɗe njaha dow laabagere mbaɗo juuɗe mon ɗo laabagere juuɗe mon ɗo laabagere mamadou aminata laabagere mamadou aminata laabagere mamadou aminata laabagere laabagere juuɗe mon ɗo laabagere Amada Juramando la bagere Rasulalahi la bagere Rasulalahi la bagere Urda jamsayane yum Urda Urda Urda Urda Mada Jurado Urda jamsayan Urda jamsayan Urda jam Urda jamsayan holma jeeyiray nelaaɗo jeeyi holma jeeyiray holma jeeyiray holma jeeyiray holma jeeyiray holma jeeyiray